salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani ala maahin maal absa wa safar bismillah alhamdulilah wasalaatu wasalaam ala rasulillah waaw mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu tey nag daayiratu Xurajatul Ayni ñu ngi woyal liggéey bi ñu daan def li université màggal wala daaray màggal euh, ni mu ko baaxoo defee bis bu set ñu tàmm benn thème ab tomb jàngat ko tey nag ñu ngi euh, ak tomb bu ñuy wax limaasa yukrahuna al muridiya aw limaasa yakrahu al baad al muridiya loolu nag boo ko bëggee woyofal da nga naan lu waral ñàkk xam gi ba tax ñenn ñi mel ni dañoo noonoo murit muy lu xaw a sensible ba tax daayira bi daal di tànn tey ah koo xam ne nii ragal nañ ne mate na ko ndax moom ñu ngi koy wax sëriñ Fallou Sylla muy doomi dëkk bi ah, di produit murit gi jàng fii ci Touba. jànge xam-xam ci jumaa ju mag ji ak ca Gédé nan nekk la nekk jàngalekatu alxuraan bu mag di jàngale it xam-xam kon ragal nañ ne war na cee mën a def ay jàngat mun lépp nekk njariñ ndax jàmbat jàngat lañ ci jublu su ko defee mbooloo mi mën cee jariñu ah bu fekkee ne leen li réere woon mu dañ bu fekkee ne leen li it ñàkk xam la woon mu dañ kon sëñ Fallou dañuy daal tàmbali waxtaan wi te dagg dagg daggoonte waxtu bi xam naa dañoo xaw a yéex tàmbali bismillah a'uudu billahi as-samii'i al-aliim min sharri ash-shaytaani ar-rajiim bismillahi ar-rahmaani ar-rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin was-salaatu was-salaamu alaa ashrafi al-anbiyaa'i wal-mursaliin wa alaa aalihi wa ashaabihi wa ummatihi wa xayri xadiimihi wa sallim tasliman kathiran walhamdulilahi rabbil alamin ixwat alislaami fi kulli makan fi hada almakan altahir assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñu ngi sant yàlla sant gu yàlla màggaayam di ko sant sant gu yàlla kaweem di julli ak di sëlmal ci suñu sang sayidana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam moom ak ay ñoñam ak i saxaabaam ak mboolem ñi ko topp ci ak rafetal ba kër bis pénc di jaajëfal suñu kilifa Cheikhna Ahmad al Xadim di ñaan suñu boroom dolli ñu ay tawfiix ci barkeem di ñaan suñu boroom subhanahu mu dolli fee yàggal Cheikh Sidi al dolli ko wéral ba lépp lu mu yéenee liggéey lislaam ci attu Cheikhul Xadim ak ci jullit yépp suñu borom defal ko ci lu kawe jortam moo mbooleem ay jëwrinam yi topp ci ginnaawam di liggéey lislaam ci Cheikh Ahmad al di jagleel ay ñaan ak ay ziyaar ci Cheikh Ahmadou Mbacke ibnu Cheikh Sëriñ suñu borom defal ko tawfiq ci ëtt Sëriñ Chouaïbou Mbacke lépp lu mu fi yéene liggéey suñu borom defal ko ci lam ci yéene lépp te ànd ko njaboot gi di sant waa daairatu Xuratul Ayn ci seen yitte ak seen taxawaay ci feeñal xam-xam ak leeral ni ko sëriñ Mourtada waxe léegi lan moo tax ñu umpale yoonu murit man jàpp naa loolu loolu kàddu la koo xam ne xëy na woyof na lan moo tax ñu umpale yoonu murit euh, jàpp naa ne jéego jéego yi nga xam ne xuratul bi ñu ngi koy def ay jéego la yoo xam ne yu mën a leeral la ndax danañ fi def ay waxtaan ci ay thèmes yu wuute ci mbooleem fànn yoo xam ne mën naa leeral lu bare bari lu aju ci liggéey Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñi ngi ndokkeel mbokk yi nga xam ne ñoo taxawee liggéey boobu ñu ngi fiy feeñal itam ay mag yu mag yoo xam ne seen taxawaay ci lislaam lu ràññiku la ak ci yoonu murit yooyu itam ay taxawaay la yoo xam ne mën naa leeral lu bari ci li war a leer dañuy jàng benn aaya su fekkee juumuñ mooy wa man yargabu an millati ibrahima illa man safiya nafsa wa laqad istafaynahu fi dunia wa innahu fi laxirati la min asalihin loolu mooy lan lan moo tax kon yàgg naa am du tey rek la ci ñun lan moo tax suñu borom ne lan moo tee ñu ànd ak ibrahima ci li indi daan ne loolu de ñi wuteek moom ñëpp dafa am safa gu nekk ci ñoom maanaam daf ñoo am problème xol wala ñoo am problème xel ñaar rek am safaan ak borom jamono ñaar moo koy indi ku am problème xol wala ku am problème xel te mooy koo xam ne lu ci ne ab ab ab défaut léegi nga safaanoo mbir fekk ne safaanoo mbir ma du défaut la nga safaanoo waaye yow sa bopp yaa am ab jafe-jafe te loolu mel na ni daana dal yonent yi daana dal gaa yu baax yépp te fekk ne aaya bi li muy wax mooy Ibrahima mi nga xam ne dafa mel na dañoo dañoo nangu li mu yàlla moo ko tànnal boppam te li ëpp itam nit ñi dañuy bañ loo xam ne dogal yàlla la te lu yàlla dogal ci boppam mu neex ko e, tànn ku àddina ak àllaaxira loolu wax dëgg yàlla ku safaanoog moom itam loolu ay jafe-jafe lay indil kooka te itam ab feebar la boo xam ne itam bu bu bu mat a jàngat la ba xam lu ko lu ko waral ci ab xol kon mel na ne Ibrahim suñu borom subhaanahu wa bi mu waxee ne wa id ibtalee ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qaala inni jaa'iluka linnaasi imaama kon day mel ni ibrahima si borom da ko examiné xool ne lim soxla ci moom ci ay qualité lépp pour mu jiite nit mi ngi ci moom yàlla daal def ko muy njiit kon nag bu boobaa ku bañ ibrahima yow yaay seetaat sa bopp parce que ibrahima amul benn ayib bu amoon ayib yàlla du ko tànn loolu day valable ci gaa yu baax yépp ne noonu itam ci lañ jàppee ne kon Sëriñ Tuubaa moom yàlla dafa noppi ci ay mbiram maanaam tànnal ko boppam waaye mu set wicc kon koo xam ne réere nga ay mbiram yow yaay xool yow ay kan ak lan moo la dal ba ngay wuuteeg moom loolu nag li ci sëriñ bi waxal boppam dafa leer lu caagi ne ñun ñoo koy waxal moom moo waxal boppam dafa wax ne law alima annaasu ma haahuna la baadaru ila talabi walakin lamma jahiluhu talabu gayra nit ñi bu fekkoonte ne xam nañ ne nekk fi man ñoom ñëpp dañuy ñëw njëkkanti si ko waaye nag bañ koy réere lañuy sàkku leneen kon réere gi umputoon sëriñ bi kon réere gi umputoon sëriñ bi am na ci lu mu xam daal wax nag ne bëgg a ubbi boppam ñëpp ne man zanna nii gayra qadimil mustafa fa innani axdimuhu bi mustafa axdimuhu ila duxulil janna daaril qaraari wal muna wal minna daan ne bu ñu demee ba réere li nekk fi man bay sàkku leneen tam man maa ngi leen wax li nekk fi man man li nekk fi man lu ma waaye mën a jorte lu dul ne dafa fee nekk ngir liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ca lam bëgg bi Mustafa maanaam du caagi nag du caagi nag sëriñ bi moo fi ñëw di tànn lam bëgg di ci liggéeyal yonent bi de yonent bi moo tànn lam bëgg ku ko ci liggéeyal mu sant sëriñ Tuubaa mu liggéeyal ko ca moo tax ko sëriñ Tuubaa dafa déclaré déclaration bu leer naññ mu ne man ku ma jort leneen lu dul ne dama fee ñëw ngir liggéeyal yonante bi alayhi salaatu wasalaam ca lam bëgg kooku loolu njortu ku ko am njortu nga la safaanoog la nekk ndax na liggéey boobu nag du ma yem ci di ko def tey rek waaye lu may continuer la ba baa may dugg àjjana kon projet de société la boo xam ne li fekk addinaa ngi nekk ay nit di fi nekk ay jullit di am Sëñ Tuubaa bàyyi na fi aw ñooñ ñoo xam ne loola lañ fas yéenee soutenir ca loola lañ fas yéene topp loola lañ fas yéene moom lañ am yéene mu àgg fépp moo xam ndax mooy programme bi nga xam ne moom la fi borom bàyyi te jubóo ci ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam loolu eh, yow mi ko sañ a gëm mu la neexee nga gëm ko bu baax a baax ndax amul kenn koo xam ne mën naa amal lenn lu dul coobare suñu borom kon Sëriñ tubaa loolu mu nekk noonu coobare suñu borom moo tax dafa wax ne amarani rabbi bi an usarrixa bi anni malazun wa ximan wa mafza fa man arada najaata am na fa man arada alxayra fa man arada najaata fi kilta daarayni fal yalus bi waaye loolu nag dalika fadlullahi yutihi lasi yashaahu wa xaala li qul bi wax ne dañ ma digal ma wax ci kaw nëbbuloo wuñ ma liñ ma wax loo mooy naa wax ne man mii ab wéerukaay laa ab làqutukaay la ab rawukaay laa ku bëgg mucc àddina ak àllaaxira ñëwal daan na loolu nag bu leen bu leen jàpp ne ci man la ngëneelul yàlla te ku ko neex yàlla jox ko ko bi mu tombee muy man itam yàlla ne ma wootal moo tax mu ne ma xul bi kon nag daalika fadlullahi yutihi lazi yashaahu wa xaala li xul bi ludi te loolu la ko sëriñ moo borom saam seere loolu magam jum bokkal ndey ak baay jàng la mu war a jàng lépp xam la mu war a xam lépp di jaam katab yàlla yaa fa ci genn wet sëriñ moor borom saam yaa fa ci genn sanc na ay dëkk li doomi soxna daa def doon dara lépp def na ko sanc na ay dëkk jàngal na mbooloo amoon na barke maanaam lépp lu nit ku baax daa am rek amoon ak wilayatu waaye moom dañ daa wax ne suy jàng alxuraan bi ak siti wallahu yaxtasu bi rahmati man yasha loolu aaya jooju Sëriñ Tuubaa rek li koy ndax nee na man du ma yafus suñ Mor borom saam nee na moom du yafus kon ku nekk ci kanamam wallahu yaxtasu bi rahmati man yasha wallahu dul fadl azim nee na aaya jooju saa yi koy jàng Sëriñ Tuubaa rek li koy firil ndax moom du yafus kon nag loolu dañoo war a xam ne kon yàlla yàlla moo moom lépp lu ko sopp ngëneelam loolu fu ko sopp lu ko yóbbu euh, moo tax kon euh, sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu wax na li ku fi tax a ñëw mooy lil Mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu maanaam dafa ñëw ngir liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te lam bëgg lam bëgg nag laala loola mooy ñëw yeesalaat sunna ñëw taxawalaat diine ba ay màndargaam leer ndax diine am na ay jamono euh, xam-xamu diine su zaahir manqué woon na ci Afrique sowu jant muy jàng xam diine rek dafa jafe woon jàng xam li aju ci fiq jàng li aju ci xadis li aju ci tafsir li aju ci mboolem xam-xam yi nga xam ne yu mënta ñàkk ci lislaam la rek yooyu ci Sénégal gi dafay jafe woon fi ne am na ñoo xam ne woon dañ doon tudd woo xam nga suñ maam yi ñun ñi ñëpp yaakaar naa si Abdou Samad mi soo soo xoolee ñun ñi ñu ci bari suñ maam yi tafsir la daa tudd am na ci ñu tudd tafsir te jàpp naa ne ba ñuy tudd tafsir ndax ixaata woon nañ xam-xam yi waroon ci réew mi yëpp waaye téewul la barab bu ne la fa la fa ñuul mooy moo def moo koy am ñag kon mag ñi tuddoon nañ kaang tuddoon nañ fóore tuddoon nañ tafsir waaye ndax téere yi fi waroon a dugg yëpp dugg na fi ndax xam-xam bépp agsi war na fi loolu da ngay gis ne soo xoolee ci mboolem ñi ñu tuddee ay boroom xam-xam ci ñi jiitu woon ñu ci néew ngay mën a gis seen mbind loolu loolu bokk na ci li tax taarixu islaamu Sénégal daanaka ñi ci bind ñu néew lañ xanaa loolu yëpp ay ay ay ay la woon ci wàllu xam-xam ak ci ci diine bi Sëñ Tuubaa ñëwee nag fekkaat ne fekk fi nag xam ne yooyu yëpp yu manqué la ci diine ji gis nga fatara bi mu ñëwee rek daal ngay gisaat ay borom xam-xam yoo xam ne maanaam fànn yi gënoon a jafe ci xam-xam dañ ca doon tarif matières yi gënoon a manqué ci diine da da ngay gis ay nit ñoo xam ne dañ ca spécialisé wu te li jiitu sëriñ bi li tax nga xam ne sëriñ bi moom eh, xëy na réere ko mooy am waaye waaye man koo man koo man koo jame dara yo du yomb waaye réere réere nag réere nag ay doxalin ci mën naa nekk te bu boobaa du doon ci anamu sëñ bi tam xëy na ci keneen lay doon waaye du doon ci sëñ bi sëñ moom amul lu ñuy réere lu ñuy réere ci mbiram dara moom soo xoolee euh, ñi jiitu woon fii ci Sénégal rek ak ci Afrique soowu jant am na ci ñoo xam ne soo bëggoon a am ismulaayil azam rek na dem fii ma Mauritanie soo bëggee jàng yenn matières yi ci xam-xam sax day yi nga génn génn fu sori ñu gis koo xam ne day dem Tayba te ku ñoom Sëñ Abdu bi noor fa ay at ngir jàng fa ab risaala ñu bayloo ko fa fukki at ak nangam mu jàng fa ab ñëw jàllaat Saalum di fa jàng beneen téere su ko defee yooyu ay jafe-jafe la woon yoo xam ne bi Sëriñ Tuubaa ñëw am na ca loo xam ne ñi ko jiitu woon doon nañ ko jéem a saafara te bokk na ca sëñ Mor Anta Sali ndax ama assasine njëkk muy sos yoon wi tuuti ci ama assasine ci ginnaaw rek bi wala ci biir ama assasine ji sax bi sëñ Mor Anta Sali di génn àddina dafa am benn dénkaane boo xam ne dénk na ko sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu euh, sëriñ Fàll moo ko nettali kenn ci ñi nga xam ne ay gëstukat lan doon lañ woon doon def seen thèse doon bind ci yoonu murit ñëw doon laaj sëñ Fallou ci yoon wi sëñ Fallou nettali ko ci ay mbir yu bari kooku noonu ci biir téere boobu mi ngi ciy wax ay nettali yoo xam ne sëñ Fallou ko nettali wax ne sëñ Mor Anta Sali ci mujjug jamonoom bi mu demee ba naagu ci boppam dafa woo Sëriñ Tuubaa ne ko yent yëf la ko wax bi ci njëkk mooy ne ko Ahmadou gis naa ne ni nga mel. su ma sañoon sama njaboot yëpp mel ni nga mel su ma sañoon sama njaboot yëpp mel kon nag na nga fexe ba sama ginnaaw sama njaboot yëpp ñu ngi say loxo daane ko bu ñaareel bi gis naa ne xam-xam ak sunna ci jamono ji lu mat a sonne la loolu sax moo doon sama yéene ci jàngale ak tasaare xam-xam bëggoon naa itam la ma ci yéene woon lépp nga motalil ma ko bu ñetteel bi mooy na nga bàyyi xel ne jamono ji jamono ju jafe la ndax jamono la joo xam ne jàmm la laaj jàmm ndax xeex Sénégal dafa sonn ci tuuram deret ba tax na woote fi dara lu ànd ak fitna loolu su ma sa doo doo ko def ak loo mën a woote ci diine rek na ànd ak jàmm bu ñeenteel bi mooy dénk gi ko dénk boppam ci foofu mu jëmoon lam ci jaayante ak moom waxtu ko ak moom pour euh, digganteem ak boroomam ak bu moo xam ne yàlla may ne ko doomam jooju muy Sëriñ la radiyallaahu anhu waaye ci loolu ngay xamee ne kon bi Sëriñ Tuubaa di ñëw amoon na manka bu am waaye lim ko diisoon ci ni mel mu melale ko ay njabootam rakki Sëriñ Tuubaa yëpp ak magi Sëriñ Tuubaa yëpp tey jii koo ci waxtaane nit ku set wicc la ci xam-xam di nit ku set wicc ci diine koo xam ne fa ko sëriñ bi jëlee ak fa ko indi fu sore la kon day mel na loolu def na ci ba def ca lu ko weesu bu dee ci wàllu xam-xam itam soo xoolee ñi nga xam ne yoonu murit moo leen meññ jàngal leen yar leen ci nekkuk sëriñ bi ba noppi ci ñoom koo ci gis tey téere bii ma tiim Irwa di kenn la ci produit produit sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadou Lamine léppam ci sëriñ bi la ko defee te boo ko xoolee ci xam-xam ak ci jub ak ci ragal yàlla kon model la ci lépp kon moo tax nga xam ne kon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu eh, doonuñ kuñ mën a réere ndax wane na ay ay ay ay yu leer yoo xam ne waras na caa jaarat ba xam ci ay mbiram dara ak lum néew niw loolu moo tax kon jooyoo moom may jàpp ne yaari yëf rek lay doon muy eh, li daloon ñi jooyoo woon ak millatu ibrahim muy am safaha benn seen xol daa am lu ci sikk wala seen xel daa am lu ci sikk man loolu laa ko analyser eh, daal di wax ne moom sëriñ bi bi mu ñëwee ci waxtu woowu rek te fekk xam-xam ak diine fa war a àgg àggu fa e, gis na ne nit ñim jamononteloon am na ci ñu bari ñoo xam ne yittewoo nañ leneen ci palug àddina ci daraja ci alal ci wàccuwaay lu mu ci mën di doon rek amoon na amoon na accès ci wut ku ni ko ñëpp di wuti waaye booba lam gis muy awlawiya ci jamono jooju mooy diine ju yeesaat ak xam-xam mooy awlawiya kon am nit ki ndekke kon ku am li mu bëgg fi ne alal léeg-léegi mu nekk wasila waaye du nekk gaaya Sëriñ ay jamono xam na ne maanaam alal ak daraja lépp nit ñi dañ ko def seen gaaya waaye maanaam du du du du du gaaya wasila la li nekk gaaya ci jamono jooju mooy li li waroon a tax a jóg nit ñi mooy diine ju jag kon barewaa na koo xam ne doon na soobu xam-xam di jàng ba am xam-xam bu bari dem ba sàmm sax waaye far xam-xam bi mu def wasila te deful ne taxawal diine mooy raaya bi far mu jàng loolu tënkaat ko ba mu jàng gis borom xam-xam boo xam ne day ànd ak ñu xamut ci loo xam ne wax dëgg moom waroon naa nekk koo xam ne moo leen di gindi waaye bal far moo leen di réeral yooyu yëpp ay jàngoro la yoon yu daloon lislaam ay jafe-jafe yoo xam ne bi Sëñ Tuubaa ñëwee moom gis na ne kon moom mu am ak mu ñàkk lu dara li am solo mooy na nangoo nekk ci ci géew bi di liggéey futtiku maanaam jëwriñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk jëwriñam liggéeyal ko ci tool bi maanaam li li nit ñëpp di bëgg ci tool bi muy barke ak alal na jàpp nekkoon loolu barke ak alal moomu dañ ko waroon liggéey yàlla comme gars yi am nañ ko te liggéey nañ ko yàlla naa ñëw wan leen ginnaaw man dëgmal liggéey yàlla moo tax mu ne ubayiul yawma rasulal mustafa bi xidmatin wa asalullah al wafa kon maanaam dafa ñëw walanteeru loolu sëñ bi daal di wax engagé wu daa ñëw engagé wu ngir diine yees par la force moo xam day neex moo xam day naqare loolu moo tax mën xëj bu metti boobu nag nga xam ne moom la àndaloon nag ñi mu doon yar ci di lekk tuuti di sol ràpp di wéet matière loo ci am baax na loo ci amul baax na loolu moom mujj ràññetle murid yi ak ñeneen sax bañ ba ñu wutal leen ci aw waaye loolu du du du jublu sëriñ bi du jublu sëriñ bi waaye waaye boo gisee ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ne murid yi gën giñ gënoon a bëgg yàlla ci seen xol ci lépp lu mën a doon lu yàlla loolu daf leen a ràññatle woon ak nit ñi ba xaajale leen ba mu jàll ñu mel ne aw xeet lañ ci ba ñu wax ñu wax naan lu ma ba tax ñu wax naan yoonu murit ak nangam naa waaye Sëñ Tuubaa moom al islaamul mahad islaam rek moo ko tax na jóg islaam rek moo ko na jóg kon ràññiku gu woon ci jihaad bu metti ci seen bakkan seen alal lépp jaral leen ngir taxawal dëggu suñu borom loola moo tax ñuy wax murit yi te xam nga bi muy sañc Tuubaa gi foo xam ne jàppee sut ni nit war na fee mën a ñëw ay mboolem rabi àll yaa fi nekkoon nga ñëw sanc fi foo xam ne ña fi doon dëkk wax dëgg yàlla ñu walanteeru dëgg lañ amuñ fi ay benn moyen te it boo génnee boo génnee lu gàtt gàtt rek mbooloo mi moom aw rab aw aw rab aw rab mën na laa mën na laa def ab añ ba ab reer moom te teewul te teewul taxawal dina jaral na la ko kon kon ñooñu eh, bëgg giñ bëgg yàlla seen bakkanu bopp seen daraja seen alal seen i wétaliku yàlla gënal leen ko loolu moo tax ñuy dem bay wax naan murid yi dañoo dofak nekk dañ ko tëyut ak yu mel noonu yooyu yëpp fekk ne siñ bi yar gi mu leen yar ci yitte ju kawe walasturaade xeyral ilmi wa diin maanaam xam nga loolu ma am solo yar nit ki ci maanaam mu teg bëtam ci li am njëriñ li am njëriñ waaye waaye nit ki su fekkee ne na da nga ko daa jàpp ne daa jàpp ne euh, alal wala barke wala àddina wala lu mën a doon mooy yoonu taxawal diine loolu ku ko gëm fi ne doo taxawal diine ku ko gëm doo taxawal diine si mi nag gëm gim gëm ne yooyu yëpp ay moyen la pour taxawal diine te ay nit am nañ ko te taxawaluñ diine kon na leen wan na wan ñi muy yar ne leen loolu du dara yooyu yëpp nit mën na ko ñàkk ba noppi taxawal diine loolu mooy al irada fi ne ak taali bi du dara lu dul loolu al irada mooy li nga bëgg muy li nga li nga jox sa bopp te te te muy yàlla ak yonent bi ak lislaam loolu na la a lépp rek loolu mooy al iraada loolu moo tax eh, Sëriñ Tuubaa kon eh, bi mu ñëwee yeesalaat xam-xam diine yeesalaat diine waaye yar nit yar nit tàggat ko ba nit man lu ne yooyu yëpp ci defar yi la bokk ak yeesal yi eh, loolu mooy état bu tàmbalee Mbàkke Kajoor ba ñëw Mbàkke ba ñëw Tuubaa état jàngale xam-xam ak bind ak yar nit ñuy jàngale former ay daara ay daara ay nit ñuy jàngale ñuy yar di jël ay ndaw ñoo xam ne ñi njëkk ñëw ci Serigne te ñëwee Touba ak Mbacke Bari ñoo ñëpp bi ñuy ñëw ci Serigne Touba ñu ci bari seeni àll wa day door àgg am ci waaye état boobu wala suraade xeyri ilmu diin foofu la Serigne Touba tolloon ñoom ñëpp bi ñëwee kenn ku ci ne dalaa jox koo xam ne mën na laa eggale sa àll wa ngir nga jàng li munta ñàkk ndax am na lu muy waajal loo xam ne xam-xam da caa bokk te ña mën a am xam-xam ngir tasaare ko bu ñu agsee moom na leen waajal ngir loola am ñoo xam ne xëy na xam-xam weesu na ci ñoom jamono yooyu waaye mën nañoo euh, ubbi ci ñoom buntu infaq fi la mooy liggéeyal seenu seen seenu ñaq liggéeyee seenu ñaq génne ko dugal ko ci yoonu yoonu suñu borom subhanahu wa taala muy taxawale ko ñuy yëngutu ci yàlla loolu day daal di tàbbi ci euh, sayidul xaw mi xaadimuhum maanaam nit ñi buñ dajee ka nangoo produire ñuy jariñoo kenn gënu ko ca ñoom kenn gënu ko ca ndax ndax lu man a xew rek sukkandikukaay dana am kon ña nangu ñu sukkandiku ci seen kaw ñooñee ci ñuy taxawal diine lañ bokk loolu moo tax léegi-léegi nag ña ña jógoon ngir def loola itam daa am lum lum lu juraat ci ci ci ci aw doxin ñu doon jóg di jàngalee yar am lum lum lum lu juraat ci aw doxin yooyu nag mën naa dem ba su su su jamono àgg foo xam ne suñ ko équilibré wut itam yëf yi mën naa indi ay benn benn safaanoo yoo xam ne xëy na ñi ci umpale ci yooyu lañ koy jaarale waaye nag yooyu moom du tee du tee lay dëgg moom di dëgg rek moom loolu moo tax sëriñ bi kon bi mu ñëwee Touba ci étape boobu la toll waaye bi mu agsee nag ba xam ne ñu bari mokkal nañ ci moo ci ci alxuraan daaray alxuraan yi taxaw na daaray xam-xam taxaw nit ñi joxe seen bopp ngir yàlla taxaw kon daan daa mel ne société am na foofu nag dafa daal di tàmbali nag jublu ci li ko taxoon a jóg muy gën a yar ak gën a xëcc ni jëmee ko ci boromam mi ko bind waaye itam gën a gën a fàggu itam yi réeroon ci lislaam yi réeroon ci lislaam te bokk na ci yi réeroon ci lislaam mooy e, xam nga ittisaalaat yi war ci diggante jullit ñi nga xam ne seen digganteeg seen boroom dañoo war seen xol àgg ci yàlla bu wér ba ba ba ba jànge ci xadara suñu borom di yëg di làmb di daj caf ak yàlla loolu maarifa lay tudd loolu manqué woon na ci lislaam nii xam-xam yi lislaam yi manqué woon noonu la manqué woon te suñu tubaab comme daa ñëw ngir yeesal yaar yépp lay yeesal loolu moo tax bi ñëwee ci état tubaa Touba wa xaadani ilayhi bi taxalli min baadi ma hazza bi bi taxalli kon comme tàmbale woon na di yare ci xam-xam ak yare ci jikkoog yu mel noonu ba tàmbali naa am résultat na soo boog ñoo xam ne day jëm ñoom ci jokkale leen ak suñu te loolu euh, mooy faw dana am ñoo xam ne dañuy tàmb yéege leen jëme leen ci seen borom ci ñu jaamu yàlla di ko wéetal ba ñoom li li ñenn ñi amoon kumpa ñoom duñ ci amati kumpa loolu nag sëriñ bi da cee teel a jëflante ak ay nit ba yeggale leen ci seen borom ci jaam yàlla foo xam ne tàmm nañ xadara seen borom ba amee fa ay xam-xam yu leen wér yoo xam ne ñiy sikk amuk yàlla dutuñ ci bokk ñiy sikk tabuk suñu boroom gi ak sañ-sañam bi dutuñ ci bokk loolu am am mbooloo mu bari la ci yar tàggat leen ci ba ñu baree bari tàmbale caa doon ay misaal njëkk bu dem ci géej gi fekk na itam boobu ci état boobu yar leen yar leen kii da koy xiifloo kii da koy julliloo kii da koy worloo kii da koy jàngaloo alxuraan kii da koy jox ay dog ci état boobu la tolloon donte ki moom ci boppam yëgoon na ci digganteem ak yonente bi alayhi salaatu salaam ci cafka yëgoon na ci diggante ma ak borom loo xam ne xay na ñoom jigéewuñ ko woon ci genn anam waaye teewut yëg na ne ba tey liggéey bi am na lu manqué xam na lu manqué loolu moo tax bi yàlla defee sabab ci mu génn dem fu sori foo xam ne nekku fa ak kenn ba mu demee ca la wut ba am kamaalul iman kamaalul islaam kamaalul ihsaan nga xam ne ëggatut ci di ko jàng waaye da ko teg xo da ko teg xo ba ku mu bëgg nga am kamaalul iman ak kamaalul islaam ak kamaalul ihsaan bu ko neexee nga am ko bu ko neexee nga am ko les étapes jéem la lii état bu teg loxo la ba noppi teg loxo nga xam ne kum jublu nga jub da nga jub euh, Cheikh Mouhamadul Bachir nettali na na am na koo xam ne daa mës a ñëw indi doomam sëriñ bi di sàkk sëriñ bi dénk ko waaye bi mu ko dénkee ba noppi fii ne bi dénk boobu mu koy mu dénk mu doon dénk ndaw loolu bi mu noppee Cheikh Mouhamadul Bachir nee na mujj na ko xam mu bokk ci fursaan lay bi nga xam daa mel ne li ko sëriñ bi doon wax naan ko dénk naa la nangam dénk naa la nangam dafa mel ne da ko doon def ci moom da ko doon def ci moom ba mu ca noppee rek kooku daa mujj yàgg loole daa mel ne lu lu bi doon def ci moom loolu nag ginnaaw géej gi la nga xam ne eh, àggatul ci état boobu jéem waaye àgg na ci état boobu làq lu wér loo xam ne ku bëgg a doonal dara nga doon dara kon loolu liñ ci liñ ciy yëgee rek mooy nga xam ne kon yow mi nga xam ne sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu da nga umpale dara ci mbiram jàppal ne ku jógoon ngir yeesalaat diine la ci ay njàngaleem ci njàngale zahiri ku jógoon la ngir yeesalaat maarifa ci def jokkale maanaam jullit ñi nga xam ne dañoo waroon a àgg ci am ay caf ko seen diggante ak seen borom di yëg comme ni ruuxi jullit ñu njëkk doon yëgee te loolu manqué woon ci biir islam mu ñëw muy mu delloo si waat yëg-yëg yi nga xam ne mënut a ñàkk ci biram lislaam mun da ñàkk ci biir jullit ñi nga xam ne ñaari liggéey la yoroon xam-xamu diine ak njàngaleem lislaam daa war a continuer di yees waaye jullit ñi tam seen diggante seen borom dañoo war a àgg foo xam ne dutuñ sikki sakkaat yi dañoo war a am egg ci état bu yaqin la ñuy def wóor leen te loolu itam faaw nga jël nit ki di dox moom di dox moom di yëg moom ba àggale fa nga war a àggale kon moom li wax gim wax ne képp koo xam ne nag maa réere xamewu sama mbir na nga xam ne kon man sama bopp damaa ñëw ngir liggéeyal yonent bi alayhi salaatu salaam ca lam bëgge li yonent bi bëggee nag mooy diine ju taxaw ak jullit ñi nekk ay jullit dëgg dëggi jullit loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo ko taxaw nu jóg euh, su ko defee bi nga xamee ne àggale ne ab liggéeyam ci tukki boobu mu tukki woon wéet fa tàggatu fa ci xeetu natt yi ñu war a teg ab jullit yépp léegi nag yàlla daf ko faa donnale ay maqaama jox ko fa ay mawahib ay mawahib mawahib la tatanaha léegi àggale na ko foo xam ne la cay tax a àggati mooy daja natt yu baree bari yoo xam ne bu ci ne dañ la koy jaay nga jënd ko ba mu jar door am loola jàll ba teggi la nga war a tegg lépp door a suñu borom nag tàmbali di la fay ci pay googu nag suñu borom tënkal la loo xam ne daa tudd mawaahib la tatanaha loo xam ne far yow yow mi koy taarif sax xamatoo ko sëñ bi ci bopp sax xamatu ko bi maa faaxa zanni lay wax léegi bi maa faaxa zanni bi maa faaxa zanni moom mi ko moom sax xamatu nu mu toll bi maa faaxa zanni xam ne muy wax yàlla naa ko yow de yaa ma jox loo xam ne sax man kawe na njort la ma doon wut sax far ëpp na ko xamoo xamatu ko nu mu toll kon nag loolu moo tax mu yàkkamte woon a dellu siwaat nga xam ne bu ñëwee kon daa war a nekk fierté ci julli ñëpp ñu ne ko a ahlan wa sahlan bu ñu xamoon li mu ëmb kon su ñëwee benn xol du ko jéem a ñàkk jublu ndax wax di yàlla moom di ak labir dafa wax ne inni lahu abdun xadimun linnabi naawiya nafi aqrabin wa ajnabi bi may dem di liggéeyal yàlla ak yonent bi di tumuraanke la ma yéene woon mooy ki ma gën a jege ak ki ma gën a sori mën a jariñ ci ma am na ñoo xam ne amuñ jooju yéene kon yaakaar naa ki koy umpale yaakaar naa da ko xamul rek waaye kon du ko umpale ndax ndax am na am na am na ku mas toog ci kanam sëñ bi sëñ bi ne ko ndax dese nga ci aw naqar àddina dara mu ne ko ah xanaa xanaa ñi lay umpale rek wax daal ak baat baatu ñi la xanaa ñi la bëggut ne ko ne ko ne ko man kenn du ma dañ maa réere rek man kenn buñu ma dañ waaye kenn lu ma xam di ma bañ koo xam ne sëñ bi yéenam mooy dafa wax ne man bi may bi may liggéeyal yàlla sama xel li ci nekk mooy su ma dellusee lu ma am naa ko bokk ki gën a jege ak ki gën a sori kooku kooku kooku kenn ku ne ëmbal na la ci cofeel loo xam ne rek loolu rek waroon naa tax yow nga bëgg ko e, moo tax kon faw ñu xam ne Sëriñ bi mu jógee ci géej gi ba mu demagut yeesal diine ak yeesal xam-xam ak tàggat ay nit ci état boobu la tolloon waaye bi mu demee nag léegi état bu wut wut ci yàlla ba am yëfi boppam am particularité xusuusi yi boppam boo xam ne da koo liggéeyee boo xam ne waxuñ ne nag daa ñëw jaar fee diini jaar fee waaye yàlla daa am loo xam ne daf ko du da ko dul maye da jaay loola nag da jënd ba jënd ci loo xam ne xamul nu koy def bi mu jëndee ba jënd loo xam ne xamul nu ñu ko def nag ci la amoon yéene y fi ne maam dafa jàpp ne moom fi ne ñëpp mën na leen fay ñëpp mën na leen fay moo tax mu am yéene yi woo leen ñu ñëw ndax confiance na boppam te loolu ñëpp koo def eh, Yuusuf lu mu waxoon ij'alni ala xasaa'ina al-ard fa inni xaafizun alim suñu borom la wax ni trésor li nekk ci kaw suuf lépp ni mu toll mu ne ko jox ma ko ma garde ko parce que man man sama bopp maa ngi tuub sax baatu parce que ndax man xaw ma dara ci tubaab jox ma li nekk ci kaw suuf ndax man ku ku doy laa te it am na xam-xam loolu ab yonente ko wax di kon Sëñ Tuubaa bu liggéeyale yàlla ba jàpp ne ba jàpp ne jëflante naa yàlla ci teraanga yàlla loo xam ne wóoru na ko ne ku ku ku ñëw ci wetam mën na laa añal loolu moo tax mu sañ a maanaam woote ak mu sañ yaatal ne maanaam ñépp la am yéene ñu fekk si ko moo tax bi mu nekkee ci biir tukki bi dafa wax ne asaluhu wa annani mu'taribu an mala nahwi mashriqun wa maghribu di agsi ba ci wa an takuna jumlatul buldani awni ala taat fi azman kon projet de société Sëriñ Tuubaa maanaam àddina bépp lay lay woo fi ne murid yi seen am ngeen responsabilité bu mag waaw bu mag a mag ndax Sëriñ Tuubaa du Sëriñ Tuubaa murid yi wala Sëriñ Tuubaa Tuubaa wala Sëriñ Tuubaa Sénégal du Sëriñ du Sëriñ Tuubaa an maana nax bi mashriq mashriq ñu dëkk charq charq mooy waa mooy saoudien yi jëm noonu waa Hijaas xarab mooy occidentaux yi tubaab yi américains yi yi ni demee mu far taj tay guddal wax ji mu ne wa an takuna jumlatul bu la neaw nii nga xam ne kon li mooy ne ñëpp dañoo war a ñëw dimbali sëñ bi ndax sëñ bi moo yor le ko ne moo yor mbir mi sëñ bi lamutul wóor na ko ne moo yor mbir mi maanaam lancé na appel mooy woote na woote bu jot ne ñëpp ñëw leen ñëw leen ndax ndax daalika fadlullah yu'tihi allazi yashaa'u wa qaala li xul bi lusi xul bi kon loolu lim nekk lum ñeme la lu wér la moo tax am na koo xam ne ila man xabaahu llahu bil basti wal unsi euh, wa xukmuhu fi aalamil jinni wal insi dafa ma dafa wax ne maa ngi jëme ci koo xam ne lépp ci loxoom la nekk diggante nit ñi ak jinne yi maanaam day mel ne moo yor moo yor moo yor bi moo yor bi fi kii kenn la ci kenn la ci borom xam-xam bi ci yàlla yi di daal di tàmbalee tagg Sëriñ Tuubaa daan ne maa ngi tagg ki nga xam ne day mel na lépp ci loxoom la nekk tey day mar na moo war a atte nit ñi ak jinne te sëñ bi am na fu mu waxal boppam ne xakkamani l xakimu wa huwa al xakamu wa minhu taatiini l muna wal xikamu dane yàlla ci boppam moo ma atteloo fi ni xakkamani yàlla ci boppam moo ne ma jógal yow la tey wa huwa al yàlla ci boppam itam fi na mbir yi moo ko sañe moom lépp ci loxo loxoom la ne bu dee lu ñuy dogal ko bàyyi lu ñuy exécuté ci moom lay jóge di kon comme comme man la ko def loo te moom mooy mooy mooy ko ki ma ko sañe loo loolu moo tax kon maanaam nekkul ci man man nekkul ci man lu dul lu dul lu dul xéewal ak xam-xam xam-xam moom njëriñ kon suñu tubaab yow mi koy daw xamal ni sa njëriñ la waaw yow mi bëgg xam-xam ñëwal in raama xul ma in raama in raama man na ko waxee woon Euh, man ilman yaakaar naa Cheikh Mohamed Lamine Diop moo ko wax yow mi nga xam ne dangaa bëgg xam-xam ñëwal yow mi bëgg koom ñëwal mooy wa minhu tatina a wal xikam kon li am njariñ lépp yàlla jox na ko ci lu doy sëkk waaw moom moom bu sëñu ta wax ne li fi nekk lépp maa ko yorit moom wóor na ko li nekk fi moom doy na li nekk fi moom doy na ndax yàlla ci boppam da ko wax ne ku akramte nii ikraama man macha faal waaw yow yàlla su ma lay xool di xool li ma defal day wane na yow da ngaa sañ lépp rek ku moom lépp sañ def lépp di akramtani ikraama man macha faal jox nga ma ci taraanga loo xam ne maanaam ni ma ko mën a gisee mooy damaa xam ne yow da sañ lépp moo tax nga doxee noonu ndax loolu waaye loolu ku sañul lépp sañu ko waaw moo tax wa kullu ma aradtuhu min kan léegi su ma bëggee ci yow dara du ceegi nekk loola man maa koy wuti waaye loola far mooy wommatu ñëw waaw loola ci bopp mooy ñëw su ma koy bëgg rek mu dal gaaw ñëw waaye daan na daane waaye loolu nag loolu lépp xam gu ma xam ne yow yaa toll noonu ndax yàlla moom lu mën a xew rek moo moom lépp di lépp moom yàlla moom moo moom lépp amul kenn kuy xëccante nguuram wala ak ak wala ci ay mayam wala ci ay sañsañam ginnaaw moom moom lépp nag su tànnee lu ko soob ci am mbindeefam def ko ca loolu lu lu lu lu war a nekk la loo xam ne it lu war a am la ndax ñun ñi ñëpp gëm nañ ne asamaan si asamaan si xam nga asamaan moom fi ne du mbindeef moo xam ne ci nit ñi la bokk wala ci jinn yi wala ci malayka yi te teewul wóor na la ne nawet bu jot da jënd saw jiwu walla nga yor say say say say say yeneen yi jëmtukaay yoo xam ne jàpp nga ne mën na laa amal njariñ asamaan si dina di la tawal te fi ne nangu nga asamaan si di xiin di taw di dënnu di def lépp nga nangu ko ay li mu ëmb lépp ci maqaam ak li ci njariñ ak li mu am ci yéemeeg lépp asamaan yi lu yéeme ne di loo xam ne fi ne xamoo lu ko téye te ndox mi xamoo fu muy sotti ko su ko neexee yàqal nit su ko su ko neexee eh, eh, defaral nit su ko neexee indil la koom mu yaatu nga xam ne yow jéemoo xam luy asamaan waaye da ngaa fas yéene jariñu ci asamaan moo mënoon ngaa weddi asamaan lu tax nag yàlla comme que lépp ay mbindeef la ci moom nit itam ak kum mën a doon rek yàlla sañ na cee dëxëñ lu ko neex ak lu ko sob ginnaaw day fekk jamaat lu doonul dara loo xam ne ci tugg duggul ci karaama gi wala xat karam naa ba ne aadam loolu dugg ci te teewul yàlla def na ci ay yu yéeme yoo xam ne fi ne faw nga fi ne ko yéem di ca jariñu di ko tagg di ko nangul lam doon ba nag lu tax nang nanguloo keneen lu mu yàlla loolu la di yonent bi yàlla bi nam mel ak waliyu yàlla yi loolu lu soob yàlla la ni mu soobee yàlla mu bind asamaan muy taw di saxal gàncax yépp kon si ko neexee yàlla eh, bind nit koo xam ne lam ca bëgg ci ay istidaadaat yépp day nekk ci jëmm jëmm mu ma lool te da ngay xam ne la loolu lépp dara génnu ci yàlla kon day mel ne nangu dogal yàlla ci gëm yàlla ak ci gëm tawxiid la bokk te loolu dangay jël Sëriñ Tuubaa boole waale ko ci biir loolu euh, moo tax am na ku ko waxoon ne ko la in fuqta kullal awliyaa mutaaxiran wala la in fuqta kullal awliyaa mutaaxiran fa xayrul baraya fi lquruni l awaxiri su fekkente ne dangaa nekk ba wàll yu bari ñëw ba jàll ku ci ne def ak keemaan ngi ñëw mujj leen ginnaaw itam loolu day tegtale rek dara ju yàlla ju yàlla waajal ndax yonent bi sallallahu kat dafa bàyyi ba gaa yi ñëw ba noppi ba wane xam nga ku waxoon ne habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di loolu taxul yàlla jeexal waaw yàlla may na ko loo xam ne fi nii kenn kenn mën na ko bañ amaat te taxul yàlla jeexal lu tax lu wax bu Sëñ Tuubaa ne ilayya qaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan lil mumkini sab dënn dërëj loolu jeexalul maa nga sinum yàlla bi jeexalu ko ni yàlla may ma loo xam ne sama ginnaaw kenn du ko mën a amaat Sëñ Tuubaa yàlla defal na ma loo xam ne du amaat sama ginnaaw loolu loolu dërëj sab dënn di la metti yooyu yëpp faaw nga nangu ne mbir yi ci loxo yàlla la nekk te yàlla daa amul lu yàlla amul lu lu dul amal amalaat bopp moromam yàlla lu dul amalaat yàlla rek tëwu ko kon yow mi am tawxid war ngaa nangu dogalub yàlla ci lépp euh, am na ku ñuy wax abdallah Cheikh Mohamed Lamine moo ko nettali xam ne Sëñ Tuubaa yéeme na ko te xam nga Sëñ Tuubaa léegi-léegi da koy jege ni mu bëggee nga am xam-xam am na Sëñ Abdou Karim Touré euh, da doon da doon dafa dafa bëggoon xam-xam maanaam taxoog sëñ bi jàng as lëf bëgg ko àggale sëñ bi ne ko mën ngaa kii rek day la jàppale mel ne daal war na war na ne ko mën ngaa mën nga toog ci kër gi rek waaye teewul fi ne soriwul sëñ bi lool te fi ne daa mel ne koo xam ne koo xam ne daa daa jékki-jékki jékki ci xam lépp te te ne doo xam fa mu jàngale ci ci keppaaru sëñ bi rek la nekk. noonu noonu noonu ko sëñ bi jekk woon yaakaar naa am na am na keneen ku ma xam dama xamul maam Thierno xuma kenn ci ñi ko gën a jege bu la jàngalee ba ci genn ba ci genn wàll gi mu ne la mbokk baaxee ko moroom genn kenn xamul lu di maanaam di la jàngale ab téere ba mu xaaj mu ne la bi ci des mbokk baaxee na ko moroom ja nga ubbi ko xam ko loolu nag ni ko jege woon ci xam-xamu zahir bi noonu la ko jege woon ci su géey nga nekk nitu yàlla ci saa si ci wax yi muy wax ak yow rek di di di la yéege day mujj ak yow sa nga yëg ne yow yaa ngi fenn fi ni abdallah moom ku ko meen xam ne ku taxawoon ak sëriñ bi la lu sëriñ bi daa wax noonu yaa abdallah nangam sëriñ bi sëriñ bi daana wax waxam am na benn bi sëriñ bi ne ko yaa abdallah xanaa bëggoo gis xaside koo xam ne ku ko ku ko ku ko wattu dem àjjana mu ne ko laa ilaha illallah ayna hiya cheikh ayna hiya cheikh ak yeneen ak yeneen yoo xam ne da ca daa wax ak moom waaye abdullah moom moo wax ne dafa am benn bis muy mu yor xes boom benn dogam di jàng di jàng di jàng alquran ba mu jàng mel ne dafa xaw a mel ne lu gëmmentu ñu wan ko mbirum bis pénc nee na mu gis wàlli yu jiitu woon ak yonent yi jiitu woon ña ca bari woon mbooloo ak ña ca am mbooloo mu yem kenn ku ne sa daraja nee na kenn ku ne di wane sa daraja ci nee na ba mu jàng mu séen mel na sëriñ bi daa am fu mu taxaw ba mu jàgg mu mel na luy génn foofa di ñëw di dox di gën a jege si mbooloo mi ba mu jàgg nee na ma di ko xool mu ne ma kooku du abdallah ma ne ko ah mu ne ma man de damaa bëggoon laa yabal ci borom bi suñu borom nga waxal ma ko lii eh, ma ma taxaw ma taxaw mu ne ma boo de boo ko waxee lii ma wax bu demee àddina danaa defal nangam defal la nangam defal la nangam defal la nangam nee na ma daal di sawar ca loolu yónnent ba lool nee ma daal di dem lu ko sëriñ bi yónni ci suñu borom dana ko man de damaa bari ak njaboot te damaa bëgg yowmal xiyaamati ku ne saxol sedd moo tax ma bëgg mu jox ma loo xam ne dana doy sëkk ba des nee na bi mu suñu borom nee na muy gis ñu ñuy sotti di sotti di sotti di sotti ba mu yàgg siñ bi naan baax na baax na baax na baax na baax na na mu mu jékki-jékki xefet fi ne loolu daa nuru ay xeeti xeeti ruya da ko nuru waaye fi ne suñu borom suñu borom daf koo mbir yi rek daf ko kashful mbir yi loolu nag taxoo bu mu taxoo sëriñ bi loolu moo ko may moo tax. bi sëñ bi ñëwagut rëy bi yaat yooyu yëpp fi ne daawa ko dégg loolu nag ci la jëflanteeg ñi jiitu woon boroom lawraat yi da nga daa gis koo xam ne day yor wérd xaadir ak tijani ak sazali yor ko ba faatu du ma sa gis gént du ma sa sax gént yont nga xam ne la doon sababu si wérd ak jàpp tarixa mooy am maarifa te ci te maarifa moo lay moo lay àggale ci xadraat yi nga mën a xanaa looy root bu yàggee mu fees waaye sëñ bi dund ci dara di dund ci dara ba faatu te te te doo feesal loolu njëkk sëñ bi amoon na ci xotti wird yi moo tax bi mu ko jàppee ci ci ci ci ñi nga xam ne ñoom amuñu woon loola moo tax bi mu demee ci géej gi yonent bi moo ko jëlalaata boppam maanaam moo ko yeesalaatal wala suñu borom moo ko yeesalaat ci digg loolu kilifa ya nga xam ne ci ñoom la balle woon mu setaat bi ci mel na meloon nga xam ne ginnaaw bi am na ñu ko joxaat waaw fi ne sëñ bi nit ñi nit ñi sëñ bi bu ñu xamoon fi ne kenn du ko bañ ndax moom dafa ñëw représenté fi alxaadiriya at tijaniya as sazaliya ndax lu ci ne ginnaaw bi mu ko yeesluwaatee ba la ca nekkoon nekkaat ca dellu na joxaat ko ay nit ñu ca yëg la ca ñu njëkk ja doon yëg waaw nga xam ne loolu loolu loolu kon nekk gi mu fi nekk di di di di di di koo xam ne dafa ñëw ngir sàmmaat eh, liggéey bi yonante bi alayhi salaam ca la mbëgg te mooy taxawul ko ginnaawam loolu da ca bokk da ca bokk da caa bokk delloo siwaat ruuxul islaam te mooy batin bi delloo siwaat ko ba nit ñi dundaat ko loolu nag moo tax Euh, mu mujj wax ne radiya anni sibtuhu aljilaani alayhi ridwanu lazi alaani radiya anni sibtuhu abul xasan alayhi ridwanu yuqalidul xasan radiya anni sibtuhu tijaani alayhi ridwanu mubidul jaani radiya anni alxulafa al arbaa xustu rida almuqarrabin almutbaa man lam yakun ani yarda fal karim radiya anni radan laysa yarim maanaam ñi fi andi woon loo xam ne dañ ci daa root di àgg ci seen borom di yëg ne ñu ngi dox am na diggante boo xam ne looloo amoon na jafe-jafe mu ñëw fexe ba rupture boobu amoon seen mbir mu delloo si watal leen ko te jëlewu leen fi te jëlewu leen fi kon Sëriñ Tuubaa ku yaatu dënn la te fi ne àggoon na foo xam ne bu neexoon ñaan borom nekk bu benn wird wala balati te bu ko defoon yàlla ànd ak moom waaye fi ne da caa bàyyi la la ku lool loola di doon ab rootukaay ba tey ñu cay root mel na ay teen yoo xam ne dafa meloon na lu amatutoon ndox mu ginaawu leen def ca ndox bu nappi bàyyi ñi ca daa root di bëgg ndox moom ñi continuer di ca root loolu loolu ak mbaax fa la te it kon moom li ko taxoon a jóg rek mooy mooy mooy xeetali diine te it siñ bi daa waxal boppam loo xam ne dañ ko war a gëm raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimuhu wa abdallahi du caagi ni sëñ moo ko bëgg de rasulullahi salaa salaam moo gis mu am yitte ju kawe maanaam gis na ci géew bi ne gaañe am na ñooñ fi ne xam-xam bu ñu ko amee ba noppi daraja lañ bëgg te bu ñu xasee am daraja ah, amatuñ luñ bëgg di xam nga ñoo xam ne ay àgg yàlla am sañ-sañ ci suñu borom ak e, dugg ci xadara suñu borom ak yu yëpp yitteelu leen yi leen yitteeloon mooy ñoom daal nekk nañ koo xam ne bu ñu toogee dañ leen warmaal daañu leen jox seen alal daañu leen doyloo ci seen lépp bu ñuy jàngate jaam yàlla loolu moo leen taxoon a jóg am nañ ko kon léegi àgg nañ fa ñu war a jëm loolu nag moom gis na ne loolu doyut dañoo war a delloosi waatal li manque ci lislaam ndax loolu wartu continuer di am mu laxasu ngir doon ko koy delloosi yonent bi alayhi salaam séen ko ci géew bi xam ne moom itam liggéeyam bii du lislaam noonu loo xam ne day dem ba ci jamono rek mu daal di war a mën a dagg dutu continuer comme diiney continuité la fawu nag maanaam lislaam dana am ko ko ko aaral bi mu xoolee ci géew bi xool ne moom mii mérité na pour mu élire ko pour mu liggéeyal ko mu xam ni kii jàmbar la disposition yi mi ngi ci moom ba pare am na dogu gi mu dem mu dem mu dem kalaame ko suñu borom ne ko daal kii nag wax dëgg yàlla doy na ma gis naa ne mën naa yenu yan bi kon nag joxal ma ko yëfi moo tax mun a raama rasulullahi min ilahi kaw nii xadimahu wa abdallahi kon sëriñ bi yow mi nga xam ne da nga xamal ne bokk na ci li tax mu ñëw muy dimbali la ak xettali la ak taxawal diine ak delloo siwaat euh, ruuxul islaam waaye jël ñi nga xam ne mënuñu woon a yéeg mu yéegal leen ba ñu àgg fa seen boroom léegi di xam di yëg di gis di làmb di daj te loolu lu ci ne def na ci ay résultats yu ma sëkk yoo xam ne mag ñi ñuy waxtaane ñépp koo ci waxtaane woon tey jii dangay daal di gis ne loolu ab résultat bu leer la ci euh, loola moo tax sëriñ bi wax na ne ginnaaw boo xam ne liggéey na ba yàlla fay mu am mawaahiba la tatanaha yàlla jëfleenteeg moom ci teraanga joo xam ne xam na ne matu yàlla ak tolluwaay rek tax mu jox ko ko dafa mujj nag doonaat koo xam ne daa am yéene yi kon bokk ak waa lislaam li am fa bashir dawil islaam lii aajilan léegi kon nag dama bëgg ma delluwaat fii ma doon wute lii ba am ko delluwaat nag yóbbuwaat ke ñaña taxoon ma wut ko te mooy waa lislaam gépp yëg ne li ma doon wut am naa ko te loolu ma doon wut maa ñoom ñëpp ko bokk kon loolu moo tax kon euh, dañoo war a bég ci moom dañoo war a rafet njort ci li mu indi waaye dañoo war a xéewloo lim ñu indil ndax coone yooyu yëpp lislaam rek taxoon mu indi ko te lim bi ne lépp lim ci li li liñ ci gis doo gis mu naan sama niti bopp yi dafa am benn mbind moo xam da caa wax ne ki bind araf yi day li mu ña aju ci ñoom ci moom li mu yéene ña aju ci moom yaakaar ko di ko liggéeyal bu dégg bëccëg te duñ dàcc duñ sonn loolu maa ko leerale noonu mooy ña aju ci moom dàccuñ sonnuñ bëgg ko di ko jox seen alal di ko defal lépp nga xam ne bu gënale doon am ci lay gënale nee na fi ne xàmmeewu leen ak ñi ñi ajuwut ci moom yéen a jëm am mooy ñoom ñëpp la bëgg a jariñ kon kooku wax dëgg yàlla ku koy umpale da umpale sa njariñ waaye koo xam ne ñi lay xëyal dala gontal féeta la foo xam ne ñeneen féete wuñ la fa nga am yaatu bu dënn gu tax ne nga bind leeral ne moo ne ñooñu ne li ñuy sonn sonn ci man yërëm gi ma leen yërëm ak yéene gi ma leen yéene ña ajuwut ci man amul amuluñ ma boobu njariñ noonu laa leen yërëme noonu laa leen yéene te su ma sañoon itam bokk bokk ak ñoom li ma am kon kooku yàlla melut wenn melokaan wuñ koy war a mën a réeree wala muy war a wenn melokaan woo xam ne moom lañ koy umpalee kon lan moo tax ñu umpale mbir yi loolu yu bare bari war naa tax waruñ ko umpale benn dëkk bii di Touba soo fi ñëwoon li fi fiy ci ay jumaa ak liñ ci daj ci wàllu alal soo ñëwoon li fi nekk ci xam-xam ak ñi fi ay boromi xam-xam waaye li fi nekk ci ay nit ñoo xam ne waajal nañ seen bopp ngir jariñ ku yàlla bind nga dib jullit nga xam ne sëñ Tuubaa buy defar nitam yërmaande ji da ciy feeñ ba fi ne fi ne taalibey murit yi dañ leen yar yarin woo xam ne ñoom gisuñ ko du sëriñ bi moom loolu moom yàlla dimbali ko ci ba noppi waaye fi ne bu ñëwoon ci benn barab gis fa kilifa doonte kilifa googu amu fa ñenn ñu fa yaakaar fi ne bu fa dajee ak murit yi la la la kilifa ak murit waroon a am ci wàccuwaay ci ci ñooñu fi ne lañ daal di yow jëf leen yow ci taral la jàppale la dimbali la ba noppi nag du tax ñu yaakaar ci yow dara loolu kon sëñ bi kooku boo ko dee bañ wala nga koy réere sëñ bi sa njëriñ rek nga bañ sa rek bañ fi ne amul benn amul yenn murit yoo xam ne tey sëriñ bi da leen yar yareenu suñ dese woon ak ab shérif boo xam ne xamuñ ci moom dara su yonoon lu dañ koy jàppale su su su suñ dese woon ak koo xam ne ci beneen tarixa lañ nekk su yonoon lu diis baa mu jaaxle sakku soxla lu ku ko dimbali bu dajee ak ñaari murit ba ñetti murit bu ñu fa matee ñaar ba benn ba ñett ba ñeent dañuy taxaw ci ay mbiram comme ni nga xamee ne bu leen fa ab sëriñ son so romboon bu dëkk ci fañ dëkk bokk ak ñoom lañ bokk teraanga dañ koy taral jàppale dañ ko jàppale loola lañ koy defal la ca ma sëkk duñ ca wàññi dara fañ ko war a teg lañ ko teg te lépp yàlla rek tax ñu def kon wax dëgg yàlla Sëriñ Tuubaa minute nuñ koy war a réeree yàlla ay nitam itam niñ leen yare yareen la woo xam ne wax yàlla ku bëggul baax man leen man man leen man leen nangul euh, boo xoolee fii ci senegal gi ñu nekk tey mboolem barab yi ñuy jàngee alquran soo xoolee kaamil yañ fi bind yépp mën ngaa mën nga leen boo leen toppee rek dañuy ñibbisiwaat ci biir mur gi maanaam kaamil yañ fa yañ fa bind yépp kon loo làmb loo làmb ci ci ci biir Sëñ Tuubaa maanaam lu ci ne doy na ab joxoñ kon nag wax dëgg yàlla koo xam ne amoo safaha safaha comme comme comme euh, wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha koo xam ne safaha nekk ci sa xol mooy am looy am lu manque sam sam xel wala lu manque sa xol da yàlla ku ku amut ci yaar yooyu wax dëgg yàlla war ngaa war ngaa war nga koo nangul ci yu bare bare bari donte kam yow su su la neexee nga bañ koo nangul ci yëpp waaye ñàkk koo nangul ci lépp du aw lay ndax ku ne am na am na ay gis-gisam waaye ñàkk koo nangul ci lépp moom du aw lay ndax melut noona te wax dëgg yàlla tabeexuwut mbirum minute nu mel noona kon kon yooyu yëpp ñu bàyyi ko xel bu baax a baax xanaa mu des rek fi may daaneele ñu xam ne ginnaaw ñun kiñ jàpp wóor nañu ne lim indi lu set la lu wóor nañu ne dara safaanu wuuteeg li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg te wóor nañu ni itam dafa jaayante woon moom ci liggéeyal ko bi Moustapha te loola du ca teggi ma bi bi ñu ko gisee tuuti ci itam ci suñuy bët mi ngi fi di ñu fuglu col bi Moustapha yooyu ma bëggoon ñun ñu nekkal ko ci amoon na yéene it tasbilu ma tabata lil mu agna yamini an adan wa midfai fépp foo xam ne lislaam waroon na fa àgg te bu yonente bi alayhi salatu salaam ci kaw suuf am na yéene àggale fa diine foofee sëñ Tuubaa am na yéene àggale fa diine jàmm diine jàmm maanaam diine joo xam ne du am xeex du am xuloo du am xeebaate diine la joo xam ne jikkoo ko moo koy lal ak teraanga ak dëddu àddina ak bëgg yàlla ak volonté ba ku la gis ñeela loolu mooy mooy mooy al adabul mardi maanaam li li kenn amul te am ko mooy al adabul mardi mooy li war a complète lépp di complète da gis koo xam ne fi ne fi ne ni boo boo rom ñun ñun liñ am boo romboon ñuy ambila Dakar fi ne mën nañu jiite jàkk ñu ci bari mën nañoo jiite jàkk fi moo ko ne alxuraan fii ne boo leen sampoon ci buntu jàkk ja mën nañoo jàngale xam-xam waaye fii ne boo leen woowoon léegi yëkkati loolu ay bagages mën nañu ko yëkkati maanaam maanaam su su su dee jaayit mën nañ ko ah, ba noppi nag yooyu yëpp doo doo xam ci ñoom loolu nag mooy al adabul mardi nit ku mel la yoon mu di soxla nit koo xam ne day complété ci lépp yoon wi soxlawuñ ko jàng koo xam ne amul ay teggin soxlawul ku amee teggin te jàngoo soxlawul ku nangu te volonté ku nangu te joxe sa bopp soxlawu ko nangu nanguute daf koo xam ne sa bopp dong nga ne lim nangu mooy koo xam ne da ngay jàng ba xam lépp da ngay fonk sëñ bi fa ko war a teg ndax xam ne sëñ bi yàllaa ko tax a jóg ak yont te te yow la a tax a jóg a tax a kon comme nam nam nam say woon ci bëgg yàlla yont bi yow da nga ko war a fayee topp ci ginnaaw xam ne moom fa mu jëm rek nga kon moo tax waroo desal sa bopp sa bopp waroo waroo sa bopp dara waaye nag li ngay ànd ak moom da ko war a xam waxtu wu nekk nag da war di yeesal sa pëstéef ak sa jaayante ci lim fi bàyyi jëm kanam waaye waxtu wu nekk da war a mel nu ñu lay ñee lu ñuy sa war a dolli ko waaye duñ sa war a wàññiku su ko loolu kon mooy al adabul mardi yi loolu rek lañ am te ñeneen amuñ ko ñu ñu ñu ñu gën cee góorgóorlu bu baax a baax te e, e, xam ne ñaari yëf nag ñaari yëf nag bëggoon naa ñu xam ko bu baax a baax te yaakaar naa sax xam nañ ko mooy ginnaaw bu sëñ bi wutee ba am salaat diine yeesalaat ruuxul islam muy maarifa wut mawaahiba la tatanaha ba mënee sa toog ci moom di jariñu bu baax te doo yokkat te li fekk yaa ngi dund tawféex ji di tolloog yow ba ba nga fi jóge sa morom ñëw di dund te duutu fi jóg léegi nag dañoo war a xam nag li ñu am la mu su ko defee loola mooy li sëñ bi wax ne ba baana maanaam li mu wax ne laanat liyal xulubu wal abdaanu saalamanil biidaanu wa suudaanu maanaam loolu ab projet boo xam ne dañ ko war a ubbi muy ginnaaw bi sëñ bi meree ni mën a mel am na ñoo xam ne fi ne liñ lay sabotal bu ñu ca mënoon a jot jot ci fi ne liñ lay jéem a bañ du bañ ak bëgg la bëggu ëpp la maanaam fi ne bëgg gu ëpp la bañ bëgg gu ëpp damay wax damay wax toujours ne yoon wi kenn amul loo ko bañ a ndax yow boo bàyyee ci yoon wi boo bàyyee ki gën a bàyyi rek laa wax ki gën a bàyyi bu àggee moom imaam lay nekk pour nga xam ne yoon wi moom moom moom lu wér la moom fi boo bàyyee boo demee fa ngay jëm. yaa fay mokkal alxuraan premièrement ci jàkk ja nga jëm moom ba ca des mooy bu ñuy laaj yow la ñuy laaj te it fi ne bu ñuy wóolu bu ñuy dénk yow la ñuy dénk kon war ngaa xam ne fa nga nekkoon baax na fi nga xam ne bi ngi ñëwee doo topp ginnaaw war ngaa xam ne baax na kon nag li ci des mooy ñu xam ko bu baax te téye ko loolu nag li ci nekk mooy sëriñ bi dafa wax ne ñu weex ñi ak ñuul ñu ñuul ñi seen yitte léegi mooy nan lañuy def ba jubóog moom ndax xam nañ ne yëf yi ci loxoom la ne loolu moom kenn nattableetu ko baana li kulli man lahu widaara kawn ne janaa bi xes na hadin saara léegi ñi nga xam ne adduna yi kese kese lañ am nii xam nañ ne xam nañ ne maanaam loolu ñu wut fi ne pour ñu am sëñ bi lañ mën a wéeru ñi nga xam ne xam-xam diine lañ bëgg wala pal wala baatin xam nañ ne loolu li ci sëñ bi yor moom kenn ku xam na ne lu wér a wér la loo xam ne làmb daj la léegi mu des nag nan la ñuy def ba mën cee ñaw jariñu loola fi ne ki nga xam ki nga xamul lépp ci pexe moom la ñëpp nekk kon nag war nañoo gën a téye loola bu baax baax xam ne kon kii daal ku ko ku ko umpale amul loo ko umpale ku ko wan ginnaaw itam wax dëgg yàlla minute noo koy wane ginnaaw li fi nekk it njariñul kese la te yéene na ci ñëpp te it li fi nekk lu doy sëkk la loo xam ne wóor na ne moom ku ñëw itam da cee jariñu ci àddina jariñu ci àllaxira kooku mooy Cheikhul coobare yàlla la itam muy daalika fadlullah yuti lasi yashaahu waxaale ni xul bi ludi du moom moo bind boppam du moom moo may boppam waaye ki bind ma maye moo ko bind may ko def ko muy wéeruwaay wax ne jotti leen ma sama woote nee wéeruwaay laa ñëw leen la ca des muy añ nag wax ji am na solo waxtaan wi am na solo leer na ah, xam naa li taxoon daayira xuratul ayni taamu la mat na euh, xam naa buñ mënee tënk li nga wax daal daanaka dara génn ci mooy ñàkk ko ñàkk ñàkk koo xam sëñ bi naan lam ma kon foofu la daal di bi ci des it mooy sëñ bi comme iraada la moom la ñëw yeesalaat ko dañuy daal di gis ne maanaam lislaam bépp la représenté kon kuy ab jullit war nga ko mën a bañ mën a bañ hmm. te Euh, noonu nga war leeral na jël na werdu xaadir ak boole ci biir kon defe naa ne waa am tasawuf moom duñ ko mën a bañ kon defe naa ne yow point bi nga tàmm mooy jàngale ak leeral muy stratégie ak euh, bu am solo man xam naa li ma ciy gën a kii mooy buñ jëlee ay tomb yu néew yoo xam ne gis nañ ne mën na koy waral maanaam li nit ñuy wax wasaayil i'laam yi média mën nay jël loo xam ne ak di nettalee noo xam ne mën naa waral ku ñàkk xam ñàkk xam ngi yokk boo jëlee am mbir euh, lu tuuti nga waxe ko noo xam ne nii ki toog ci këram fekkee wut gisul loolu mën naa waral léeg-léeg nit di jàppe lu mu wërta jàpp euh, fii rek laa jël misaal ci fii ci Madiyana ci kër Sëñ Sohaybu gi am na fan yi rek fi fi jël na imaam nàngam ca Touba mu mel ni Euh, euh, euh, maanaam ñi ñëwut xamuñ nu mu demee mën na leen a jural ak ak ak mu demee gis naa sax sëñ bi def ci ay leeral waaye lu mën a xew rek ci Tuubaa la xewe ka ko def nee nañ sax du imaam waaye nañ koy waxee dana tax ka nekk ci yeneen barab yu wuute di ko réyal ak di ko àggale foo xam ne mën naa jur ak mbañal mooy réyal mbir moo xam ne rëyut ndax jamono ju njëkk ja amutoon média yooyu waaye léegi média dafa bari te lu ne mën na koo yóbbu. Euh, bokk na ci euh, wuute ak culture bi nga xam ne moo am ci Sénégal mooy sëñ bi li nga wax noonu bi mu ñëwee di yeesal daa taamu daara te daara li ëpp ci tubaab gi ci la ñuy yare nit ñi euh, réew mi am lu ñuy wax république muy fondation bu bees boo xam ne tubaab yoo ko fi indi bi mu ko defee nag bi ñëwee dafa mel ni lu xàjjale nit ñi bu njëkk ay kajoor ak Bawol ak amoon léegi rek dañoo mujj dem ba mel ni mu réew mi réew mi bi mu amee. dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen jaarale ci école yi am ñoo xam ne ñu ngi leen jaarale ci daara yi ñi ñu jaarale ci école yi nag ah, ak ñi ñu jaarale ci daara ji mën nañoo bañ am li ñuy wax wadatul masir mën nañoo bañ a bokk nu ñuy xoole bokk nu ñuy gisee loolu nag bu dee am mën nay jur ah bu waa daara waxee te li ëpp ci l'islam senegal gi ñu doxal nag ñi yëngu ci l'islam ah, li nga xam ne ni Sëñ Tuubaa liggéey na ko ci eh, ràññeewu na lool ba tax na waa daara mën nañ ne eh, waa Tuubaa ci ci ëpp lañ léegi loolu mën naa jural nit mbañeel mooy nit ñu bokkut nu ñuy xalaat it dañ boole leen ak kàmb muy boole leen li ñu wax jumhuriya mm-hmm. suñ bokkut nu ñu leen yere mën naa jur ñàkk a xam li ñu naan incompréhension te loolu li muy li muy jur dana bokk na ci li ñu doon jàngat tey ji muy muy jural ak ak mbañeel euh, ñàkk bokk culture googu nga xam ne jamonoy mag ña amutoon ñëpp bokk nañu daan jànge pire amoon ak kokkee ak feneen waaye amutoon ay école yoo xam ne nii ña ngay jàng ay Jules Ferry ak loolu bu amee dafa doon lay jur suñ xaajale suñu diggante kon waroon nañoo boolewaat li ñu wax ci euh, devise Sénégal ne benn bit un peuple un but une foi ne ñoo bokk nañuy xoole ñoo bokk fu ñu jëm ñoo bokk nañuy xalaate loolu waroon nañu xoolaat ko càmbaraat ndax li ñuy wax jumhuriya ah ñun maa ngi dégg keroog bi sëñ bi defee euh, kii bi bi biñ biñ teree liste jigéen ñi ci dëkk bi am ci ñu naan euh, euh, euh, bokk na ci liy waral mbañal lu bari ñu ci wax wax yu bari ba am ku ne dañoo war a xam ne réew mi ñoo ko bokk lii ñu wax république ñii dañoo jógee Fuuta ñii jógee Saalum ñii jógee kenn ñu ñu taxaw république loolu bu fekkoon noonu la demee defe naa demewul daa demewul noonu tubaab yi ñoo ñëw ci réew mi rek seet na leen neexee ñu rëdd seen dig ne lii mooy république bi fekk ñu amoon ay aada ak cosaan ak ak di nekk ci duñ doon doxal kon ñoom bu indil ñu ay nekkin woo xam ne mën naa bokk ak bañ a bokk ak ñu nekkoon loolu mën naa waral ah ñi nga xam ne yaruñ leen yar bi mu jural leen eh, eh, eh, mën nay jur ak mbaña bokk na ci Tuubaa gi bi ñu ko forlee ba nga xam ne nit ñi wuyus nañ fi ba dëkk ci li ñuy wax homogène ni nit ñi bokkee maanaam boo tàmm boo tàmmee lu mel ni Tuubaa nga xam ne ñëpp bokk di ay wolof li ci ëpp bokk ñëpp bokk di ay murit di ay julit bokk di taalibe Sëñ loolu it mën naa jural waa tubaa mu mel ni ñoom it ñu gis lu wuute rek ah mu muy niru leneen te fekk ñoom it dañoo am xéewal boo xam ne li ñuy wax homogène yi dañoo am ak mbokk bu ñu am boo xam ne yombul nag léegi ci jamono ji mm-hmm. nit ñu bokk dëkk dëkk bu toll nii li toll ñaari million jëm jëm lu ko ëpp ñëpp bokk koo ne dama ne mën la naam mm-hmm. ah koo ne jërëjëf sëñ Tuubaa mu nangul la ko ah, ñu bokk mazhab bokk ngir bokk lépp loolu lu jafe ci àdduna bi jamono ji kon loolu nag bu amee mën naa jural ñu nit ñuy jàpp mbir yi noo xam ne xëy na àggu fa kon ñu gën a dellu tolérance boobu ak woyof gi nga xam ne moom la ñu yore xam ne lii ñu nekk nii daa normalul moo tax na ñu bari mën nañu jàpp ne ah, dañ ñoo kii fekk demewut noonu ah, li ci des it eh, euh, maanaam ngir yu bees yi dugg si nga xam ne ñoom dañuy woyofal li ñuy wax mu xallit ñun ñi nga xam ne ay suñu xa àll ba dañuy def taqlid topp ci sëñ bi lu mu wax ñu ne waaw rek ñun loolu li ko waral mooy. li lislaam dafa xaw a jafe nit ki dafa war a euh, jàng yu bari bara mën a mën a nekk muttahid loolu tax na ba duñ woyefal jël ay sos ci diine ak bi ci wax luñ ci luñ ci xam loolu bi mu amee am na ci ñoo xam ne am nañ fi boobu moom ñii ñooy ay waxaabi yi lañ ñii ne fa lañ jànge ñooñu bi ñu ñëwee seen ñàkk mën a toléré taqlid bi nga xam ne ñenn ñu lañ nekkee waa ahlu tasawuf muy murid yeeg tijaan yeeg nga xam ne ñoom weer sax duñ ko séntu far dañuy bàyyi kilifa yi séntu ñooñee jural na ñoom it li ëpp ci mbañ gu bees bi sax fa lay jógee nga xam ne di ñëwee amuñ compréhension boobu amuñ tasaamox boobu nga xam ne moo war ci jullit ak moroom ma nga xam ne li ëpp ci jullit ñi nekk ay gëstukat mënuñoo nekk ay muttahidi ñu bàyyee seen bopp sëñ bi bàyyee sëñ bi ñu wax te sëñ bi doon ko simple ndax moom bañ na ko ba liy indi jadal ci lislaam jàngaluñu ko téere yu weex yi li sëñ Samba daan wax rek daanaka ku ci yem doy na sëkk borom xam-xam li leer ci diine rek la ñu wax la des nag mu bàyyee ko borom xam-xam yi loolu mooy ñu wax mu xam xal euh, euh, ñi def taqlid dafa am nag ñoo xam ne ñoom nanguwuñ loolu nanguwuñ ngir nanguwuñ euh, ay ay ay ay tarixa ñooñu bi ñu ñëwee jur nañ fi lu bari ci li ñuy wax mbañeel ci wàllu weer weer ci yu mel noonu loolu nag bokk na ci li koy saafara ñu xam ne ñëpp mënuñoo nekk ay sëriñ mënuñoo nekk borom xam-xam yoo xam ne ah bokk na ci ah, ñi nga xam ne nii liñ naan suluuk ba'd al muridin ñi nga xam ne nii njàngum sëñ mi dégguñ ko bu baax ba noppi xëy di ko jàngale maanaam loo matagul së euh, loo nekk gul taalibe mënoo nekk sëriñam bari na ci ñoo xam ne ñi ngi euh, boo demoon Ndakaaru gee da nga gis ay nit ñoo xam ne buñ la dañ lay dañ lay song sa oto euh, laaj la addee sëñ bi fel loo xam ne yow mën na caa jural sax nga bañ lépp lu ñu wax tudd sëñ bokk na ci it ñenn ñi yor micro ñoo xam ne nii ah lépp luy indi adaawa ak baxda dañ cee nekk nag maanaam seen jubluñ ko ci waaye ci seen kàddu di gonfler loo xam ne rëy rëy di tuutal lu rëy loolu mën naa indi lii ñu mañal événement yi fi amoon bërki démb rek ci waa Louga gis naa ci ñoo xam ne dañoo ñëw di ko di ko amplifier di woote def conférence de presse te fekk ah liñ naan su fekkoon ne mën ngaa jëfe loolu naan euh, fal man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aaxir falyaqul xayran aw liyasmut am na ci loo xam ne nopp ci dañ ko gën waaye am na ci loo xam ne nii ci euh, ñenn conférenciers yeeg yooyu Ah, ni ñu koy def di di di di tadd xiim di di mbir yi ngir wax dëgg yàlla seen seet la xëy na loolu mën naa wokk ci jural mbañeet mën naa yokk ci liy jural liy jural ak wuutoo ci biir jullit ñi li gën daal mooy bu ñu gisee loo xam ne nii day yokk ah, mbooloo jullit ñi ñu fësal ko suñ gisee koo xam ne ñàkk naa xam sëñ bi wala mbooloom ñàkk naa xam sëñ bi ñu suturaal ko te bàyyi ko noonu loolu bokk na ci li nga xam ne mooy sulu baax bi murid yi nga xam ne moom gis naa ne ah leen na loolu nag moo jur ba mbañeel googu jur na ba ñi dëkke tubaab gi nga xam ne daanaka sax li leen war ci réew mi ci ay xéewal bari na lool yu ñu leen war di jox waaye ñu fiy def dañuy dem ba ba gouvernement bi sax bu koy def day bëgg a wane ak yamono ba da koy tuddee eh, li ñuy def ci kër diine yi boo seetloo Touba gi bari na fi eh, lu mat daanaka ñaari million nit dëkk nañ fi ñoo xam ne ni ah eh, yayoo nañ yu bari ci budget réew mi te budget réew yi mooy xaalis bi nit ñi bokk bu ñu koy joxee war nañoo seet fa nit ñi nekk ñu investir ko fa suñ dee seet. ndakaaru daanaka mooy jël lépp ci investissement yi ngir nit ñi dañ faa ëpp kon bu ci amee kenn ku ci topp tubaa gi la waroon doon waaye bu ñu koy def ci turu diine lañ koy def ngir ne ragal nañ muy jur ak mbañeel bi ñu doon débat léegi loolu nag loolu lu war a seetaan la ndax euh, téeméeri milliards lañ waxoon mun nañ def Touba biñ ko waxee léegi euh, jël nañ ko yaatal ko ne dañ koy def ci kër diine yëpp loolu muy lu baax loo xam ne waa Touba dañ ciy sant waaye waa Touba dañu war a leen cër bi dul cërub diine yi ndax fi ne li leen waroon ci diine dañ ko def. boo seetloo li ñu investissement yi ñu def nii biñ ko yóbboo ci kër yi des ay dalukaay lañ ko def ak jàkkaaki eh, église am na église bu ñu def barki dem fee ca Fatick muy lu baax ay jànguwaay moom nepp ci am waaye ñun suñ ñu defal kon dañu waroon remboursé loolu ñu defal mooy li may wax mooy ñaan ci turu diine suñ ci dee xool waa Touba ngir mbañal gi ñu doon wax nii ngir ne ni ko rajo yi waxee ak ñeneen ñi dana dem ba suñu àq sax dañu koy xaj te am na ci lu bari loo xam ne yeyoo nañ ko nag lii li fi nekk ci yoon yu ñu war a defal du ay jàkk jàkka yi waa dëkk bi defar nañ ko dalikaay yi waa dëkk bi defar nañ ko jàngukaay yi waa dëkk bi defar nañ ko waaye li nga xam ne nag dañoo bokk ci ñi sedd ñi ñi ñi joxe suñu wàll ci ci ci ci ndàmbul réew mi soxla nañ ñu delloo suñu yenn yi loolu nag kon jërul ñu koy def ci turu diine ngir ragal mbañal gi ñu doon wax ngir ragal boo ko defee ñooy da ngay gënale loolu bokk na ci li nga xam ne mbañal gi ñu doon jàngat loolu lay jur li ci des nag mooy waa dëkk bi ak ñi nga xam ne ñi ñoo yor léeg-léeg kàddu yi ñu gën a Euh, valoriser li ñu yor gën a fonk li nga ni nga ko waxee léegi rek gën a fonk sëñ bi gën a fonk njaboot gi ndax kenn amul lu dul njaboot sëñ Tuubaa parce que da nga fi gis nit koo xam ne ah dana jël rëq-rëq yi am ci biir di ko feeñal ak di ko mel noonu te bu ko fi jëlee daanaka du teg dara keneen koo mën a jël lambar euh, euh, jël ay mbiram doo ci fekk mat gi nga fekk fii soo demoon ci état du ak mat muy yu tubaab bi muy yu fii soo demoon ci ba ca xolofaaw rachidina sax boo fa demoon mën nga faa lëmbat loo xam ne te du noonu kon di seet li gën a baax nga di ko def ngir mbooloo mi gën a mën a ànd ngir jamaaxa gën a mën a am di di digëral say kilifa loolu dana tax ba lii ñu taxaw gën ci am ndax kat teqalikoo day waral néew doole kon li xew léegi jël kilifa yi di leen néewal doole ak di leen defee ñu jëm ci gën a taxaw ñu ngi fàttali mbooloo mi kon ne sëñ Fall lañ woowoon tey jii si la mu ñëw defal ñu waxtaan bu am solo bis bi ñu ngi ko jagleel sëriñ euh, moor Fallou Sey bu ñu dañuy jox njabootam balaa booba nag ñu jox sëñ euh, balaa booba ñu jox sëñ Cheikh ana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyoo te nuyoo boobu ñu di ko teg ci loxo suñu kilifa gi nekk ci pénc mi mu di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké yàlla na ko fi yàlla yàggal te mu ànd ak wér ak njaboot gi yëpp di nuyu itam kilifa yi nekk ci jataay bi taaliq bi mën naa wax ne du gudd ndax jottali lu jot leneen lay indi te ni ko Cheikh Mamadou Fadil defe am na solo jot na mënees na cee jariñu ci nu kawe jot waaye it Cheikh Maodo ni mu doon idaara jataay bi it am na solo lool waaye sëriñ Touba kon euh, dañuy jàpp ne képp koo xam ne ñu ngi koy tudd fi kanamam muy am lum ci sikki sàkka nekkut ci Serigne Touba waaye ka ko jotale Serigne Touba kooka ca la mbir ma nekk ndax ci misaal su fekkee ne kuréelu xasida am na ñu ne nañ jàng inna la maana xabatu rabbal alamin ba mu jeex ka ko daan dégg mu neex ci moom lool waaye ñu ne seexu naa loo kaay jàng man nga mu ne waaw man na ñu ne keneen ñëwal man nga mu ne waaw fekk ndekete mënuñu waaye dañoo jàpp ne sëriñ sa Jaxate mokkal na ahbabtu buñ ñëwee bu yëkkatee dañ ciy ànd rek bu waree eh, yëngal gémmiñam mu yëngal ko waaye mel ni mooy jàng te jàngul waaye loolu nag suñ demee ba kuréel gi nga xam ne ñoo war a yëkkati xasida yépp kenn mokkalu ko ca suñ nee jàngalee nit yaakaar naa ne ñoog seetaankat ya ñoo cay bokk ak déglukat ya ñoo cay bokk wàccuwaay kon sëriñ Touba li mu indi lépp nit du ko dégg wala mu gis ko ca anam ya ko sëriñ Touba doon waxe te jàppewu ko noona wala nu ko raw ndax bokk na ci kéemtaan yi nga xam ne moom la sëriñ Touba amoon mooy niti yàlla bu ñu daan defar nit defar bi mën naa yàgg lool waaye ñaata nit la Serigne Touba defar ci benn bëccëg bëccëg boo xam ne da koy yendoo ak kooka waaye bu fa jógee lépp lu mu waroon a xam lépp lu ñu waroon a làggal ci ay cëram mu def ko waaye lépp lu ñu waroon a làggal ay cëram ba mu bañ ko loola da ko cay defaale doy na ci misaal rek ci pénc mii ñu toog kii ci nekkoon muy Cheikh Chouaib bi yàlla nañu ko yàlla fayal euh, yendu naag moom mu def ca moom la mu defoon ca moom waaye sëriñ Saaliwu daan ñu ko junj daan wax ne tuut tànk day bu ñu koy jëflanteeg moom wëree suta ba mu doon mag wala ñu di ko beral jëflante boppam waaye nañ jëflanteeg moom ci ni ñuy mag ndax mag xëy na ay cër la ko da ko réyaay ba la ko ëpple waaye du euh, matuk cër ya ak xel ma wala ca nam ko waxe woon loolu liñ ci bëgg a wax rek mooy bu ñu bëggee jottali message Serigne Touba bi dañ ko war a jànge na ko sëriñ ba doon jàngale di ko delluwaat ci balluwakaay yu wér te bañ rek di ko defe na mu nu soobe waaye di ko xalaate na mu ñu jubloo moom li ko ñoroon mooy defaruk euh, nit ñi ak seen mbir na baax ndax wa axrina bi bi kulli muslimi wa najjina min charri kulli mujrimi bariwut loo dégg nit di ñaan ñaan gu mel noonu te ndegete de képp koo xam ne danga bëgg àgg ci yàlla wala sa ngëm ñu ne dëgg la yonent bi waxoon na ko sallallahu alayhi wa sallam ne da ngay bëggal sa mbokk li nga bëggal sa bopp waaye sëriñ Touba dafa demoon ba àgg lu gën a kawe foofu te moo di bëggal sa mbokk lu gën a kawe la nga bëggal sa bopp mag ñi dañ daan defar nit bi ñuy wax naan nangam nekkul ci ay téere ah kay kii téere la nekk waaye himma ba sëriñ tubaa andi woon parce que fu mag ña dafa taxoon soxlaatuñu woon téere ndax lan ndax li ne woon ci téere yi dañu leen ko daan tàggat ba ñu man ko ba nga xam ne su fekkee ne waxuñ kalaam ak arab koo ci eh, nekkal bu waxee hadis doon wala alxuraan wala mu doon waxi gaañu baax waaye suñ demee nag ba loola wuur booba jàll kon war nañoo dellu siwaat ca téere ya war nañoo dellu siwaat ca yarin wa nga xam ne moo amoon ca jamono jooja daan nañu wax ne defar nit moom Serigne Touba bokk na ci li mu mane woon ñu bari mooy te daf koo digle nit kuy defar nit war nga koo mën a defar ba mu jógee ci lu gënut dugg ci lu gën te moom sax du yéeg ne yaa ngi koy soppi kon nit ki boo koy jàngal mu yëg ne yaa ngi koy soppi rek daanaka bu boobaa loola dafay mel ni lu des la la ca topp mooy lii ñu def muy tudde ko mag ñu baax ña am na solo lool mag ña àndoon ak sëriñ bi sëriñ bi defar leen ba la nekkoon ci moom mu def ko ci ñoom ku mel ni maam Cheikh Thierno Ibrahima Faati du ma dañ di ko baamtu ci jataay bi am na ko ci bind muy sëriñ xale mu tudde ko góor yàlla mag ñooñu bu ñu jàngee nañu nekke woon lool rek dina doy sëkk buñ dajalee kenn ku ci nekk jikko yi nekkoon ca moom defarug sëriñ Tuubaa dana mën a àgg fu nekk te fum mu àgg it euh, nit ñi danañ ko jël danañ ko jariñoo ndax sëriñ Tuubaa ñëwutoon ngir déloger mbooloom kenn ñëwutoon ngir nangu nitu kenn moom li ko ñoroon mooy na ñëpp defaru na ñëpp baax na ñëpp àgg ci yàlla loolu kon bu ñu jëlee message boobu di ko jàllale mu tëë dugg ca bopp ñañ koy jàllale rek dañoo war a xoolaat suñu bopp te delluwaat ca moom eh, ca ballukaay ba xoolaat naka la nekke woon ndax yonent bi dafa wax sallallahu alayhi wasallam ne imaan mi ngi tàmbulee ci ashhadu an laa ilaha illallah waaye mi ngi yem ci fekk lu nara a lor nit nga dindi ko ci yoon wala nga tuxal ko foo xam ne naroon na ko faa mag ñi daan ko tënk ci ne ak defaru mu ngi ci foo rombee lu yàqu wala lu nar yàqu nga dindi ko waaye soo ko mënta dindi it sab xol aju ca kon yooyu buñ ko delloosee rek ku ñuy waxal bu boobaa danañu mën a dugal loolu ci moom te sax sëriñ Tuubaa li ko ñoroon mooy nit ki buy jàngale jàngale ma na ca ay wax gën a néew waaye lan moo cee ëpp mooy ci jëfinam ci ab jëflanteem ci la muy def ku ko ca xool wala nga gis ko da nga ca gis yàlla danga nga ca gis ni kii kat li muy def dugg na ci xol ndax ngëm yàlla ga ak sellal ga ak itte ju kawe jooje itte ju kawe la fi indi woon de yekk eh, yeesal ko te moo di fexe ba liñ daan jàng ci téere yi mu daan bari ñu di ko werantee ñu def ko ci nit ñi def ko ci seeni cër làggal leen ci ba dootuñu mën a def lu defewul waaye dootuñu mën a bàyyi it lu ñu war a def loolu daal bu ñu delloo ci loolu melaat noonu kon du aajee ñu naan lii sëñ bee ko wax wala lii sëñ bee ko def waaye bu boobaa kenn ku ne dañuy jékki-jékki rek gis ne ñëpp soppiku nañ ñëw ci wooteb sëriñ bi te soppiku nañ jëm ci lu baax lay doon ndax sëñ bi indi fu yees lislaam la te lislaam jooju mooy ji yàlla wàcce woon mu doon lu rafet doon loo xam ne it sëriñ bi ñam ñu roy la woon mooy dane woon seen eh, murid yi de yéen saxaaba yi ñoo di seeni baay ci diine kon loolu lan lay tegtale mooy ci diggante bi xëy na ay lënt mën na cee am xër mën na cee am nit mën na cee jëfandikoo loo xam ne xëy na ci xalaati boppam la ko tegoon waaye nañ delluwaat ca yonent ba ak ña àndoon ak moom ñooña lañu sëñ bi royloo ñooño nag ba mu ca yaree ñam ca yaroon fuñ a tooge bu ñu waxee ñu xam ne alxuraan a wax bu ñu jëfee ñu xam ne alxuraan moo jëf lii kon dañuy guddal luñ ci dolli waaye li fi Seex Muhammadul Faadil wax sëriñ Murtada tënk ko ci loola fees na dell ba mën nañ cee jariñu ci bis bii ñu fi jógee tey jii ci fukki fan ak ñaar ci safar ba baa ñu fiy dellusiwaat ci fukki fan ñaar ci safar incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.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 ñu ngi leen di nuyu te di leen tatagal ci weeru tedd bi xam ni mooy weeru Seexul Xadim di weeru safar di jël nuyoo bi ak ziyaar bi di ko teg ci loxol Cheikh Ahmadou Mbacké moom Cheikh Souhaïbou radiyallahu anhu di ñaan yàlla yàggal ko fi suñu kanam dëgëral ko ci liggéeyu Seexul Xadim ñu yàlla bu mu àggale fi mu bëgg ci ni ko yéene di sant daayira yi itam mbooloo yi nga xam ne ñoo sos lu mel nii ngir di fàttali mag ñi ci tënk rek dafay mel ni fàttali dundu gaa yu baax yi ak di ko jàngat ak waar la ñeel bindee fi ñeel jullit ñi waaye itam dana dolli seen ngëm yàlla doolee xam gaa yi baax na fi ñu jaaroon dañ mën faa teg seen tànk أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلى آخر الآية ba tey dana tax nit ki xolam gën a dëgër gën a sax ci diineem gën a am takku te wér ci lépp lu dal ci kawam ci natt yi ak coono yi dindi mu mën ko yenu fàttali ko yonent yi ak gaa yi baax yi nañ yenu woon bu njëkk muy wa kullan naqussu alayka min anbaa'i rusuli maa nusabbitu maa nusabbitu bihi fu'aadak ilaa aaxiril aaya kon loolu mooy njariñal di fàttali dundu gaa yi baax bi ku xam ni daa wuy di woon woote Sëriñ Tuubaa boobu ba tax bokk ci làmp yi nga xam ne Serigne Touba moo leen taaloon ngir ñu leeral gox yépp ndax gox yépp Serigne bi gox bu ci dafa taal benn làmp bu war a dellu pour leeral ko xam nañ ne adduna bépp lëndëm la waaye li fiy leeral mooy xam-xam ak njub woote Serigne bi nag weesuwul woote jëm ci texe àdduna ak texe àllaaxira rekk yaquulu ahmadu ila saada kullal wara bil ilmi wal ibada la sëñ bi waxoon loolu rekk mooy woote bi yeneen amu fi loolu nag ñu setteental ba xam ni woote bi bu am njariñ la tey ku yàlla waajal day daal di daw yu ko rek sëriñ bi waxoon ni képp ku la woo ci nangu wuy ji ajib bi daayil xayri watrukan siwa wala tamil liman yamilu li hawa fa aysuma daaka daain fansuri qabla al ijabati tafus bi nasari loola moo waral wuy wuyu bi nga xam ne mag ñi wuyu woon nañ ko wootee ko kon lii am tënk la ci dundu Sëriñ Mor Fallou Seye di ko tuddee libération njàmbur muy làmp njàmbur muy tur woo xam ni Sëriñ Tuubaa moo ko tuddee loolu boppam tur woo wuyu na lool ndax leeral na njàmbur ci wàllu xam-xam ak jaamu yàlla ak yéen ñépp ci ni ko sëriñ bi woon lépp mu tegu ko ci li ñuy tuddee ak toxal ci alxuraan toxal ci hadis ndax loolu mooy yoon moom nag mi ngi feeñ jamono ci atum 1874 dëppoo 1293 hijriya waaye juróom bu mooy sëriñ Mor Hamsan Sanata Sëy di doomi Mor Abdoulaye Sëy mu mag ma nga xam ni sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu seede na ci moom ay seede yu rëy wax ne li ñu dikk jamono fekkoon lislaam yére la fekkoon na ko mu ràpp ba def ay sagar sëy Mor Abdoulaye sëy fekk yor ko jël pusaam di ko daaxaatu ak a ñëwaat sëy bi ni ko andi ma teel la ba yóbbu ko fu mu ko bëggee moom Seexul Xadim radiyallaahu anhu kon kooku kooku la ko Serigne Touba fekk kooku mooy maami Serigne Mor Fallou Seye nii ñëwoon ci Serigne Touba eh, way juróom jigéen mooy soxna Fallou Lo di doole bu ñuy wax Ibrahima Ngoone Lo bokk ci waa sunu si eh, sëriñ waxoon na ni diggante ñaari dëkk ñaari wàllu yi fi nekk seeni leer gëndoo na ba tax na ku doo gis malaaka mbugal muy diggante kër moom Abdoulaye Seye ak kokki maanaam leeri sëñ moom Abdoulaye Seye ak leeri Cheikh Moukhtar Dumbe radiallahu anhuma loolu waxi sëriñ bi la woon euh, kon loolu lu am solo la jëmm jooju nga xam ne mooy maam si ma fàllu say ndax it bokk ci askan bu baax ak waajal la ci nit ki donte la yaay góorgóorlu ba am li nga bëgg itam ko loolu moo tax bàyyi xel bu baax ndax maa kaana abooki imraa sawin wa maa kaanat ummuki baqiyan askan bu baax a tax ñu doon ko wax ndax askan bu baax ku ca bokk ak mbaax rek lañ lay jorte wa kaana abuhuma saalihan itam seen bàyyi lay bu baax nga woon moo tax yàlla jaglee leen loolee askan bu baax moo waral kon lu am solo la doon tëlee sa góorgóorlu ci la bokk euh, sëñ Mor Abdoulaye Sey moom nag wax nañ ni jàngaloon na sëriñ Mor Anta Sali radiyallahu anhu leen ci ay xam-xam bokk na ci xam-xamu naqbu muy al alfiya ibnu Malik waaye itam leen ci fiq muy muxtasarul xalil yooyu wax nañu ni moo ko jàngal moo tax sëriñ Mor bi ñëwee ci sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu sëriñ bi daa wax ni dama ciy fay bor ndax maamam dafa jàngaloon sama way bi di sëriñ Mor am sëriñ sëriñ am njàngam ñu ngi jàngee alxuraan ci way juróom ba mokkal ni sëriñ Mor Alassane Sant radiyallaahu anhu bind juróom-ñaari kaamil ci kanam door a génn jàngi xam-xam ñëw na ci koy ñu wax dëkk bu ñu wax kër jaaga ci sëriñ Mor Saasum Jaxate di doom ci Xaadima Jaxate Kala euh, ngir gën a wérlu alxuraanam ak itam lu aju ci xam-xamu alxuraan muy tafsir mu jàng fa lenn ci wàllu yooyu boo fa jógee ñëw ci wax sëriñ Mor Sassou Jaxate dem ci sëriñ Mor Birama Jaxate waaw sëriñ Mor Birama Jaxate ci la dem moom jógee ci sëriñ Mor Sassou ginnaaw bi mu fa dajalee lenn ci xam-xam yooyu la jël si waat ci kër way juróom wa di sëriñ Mor Alassane Sant radiyallahu anhu ginnaaw bi la jàll ci sëriñ Tuubaa nag radiyallahu anhu jaayante ak moom ngir xam ne ab sëriñ bu lay tërbiya di la yóbbu ci yàlla mënta ñàkk doonte am nga xam-xam ba noppi ku ñuy wax sëriñ moo jaxate di doomi ndeyam moo ko yóbbu woon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu bañ ca demee nag xam nga nit ki moom bu dee xam-xam rek la xam di doomi soxna fu mu dégg doomam ni ma nga fa dana dem toppi ko ci la ko sëñ Mor Alassane Salatu toppi ba fekk ko ci Sayful Xadim daldi cay wax ak sëriñ bi sëriñ bi waxtaan ci moom wax ko lu ko doy ba tax mu bàyyi ko sëñ Mor Fallou radiyallahu anhu ni ko xam naa ne ay doomi soxna ngeen waaye danaa def ci moom boo ko fi bàyyee lépp lu war a ne doomu soxna yaakaar naa ne danaa def ci moom loo xam ne xëy na doon soxla gën a lot ci def ko ci doom te yaakaar naa def na ci loolee loolu mi ngi tolloon mille huit cent quatre-vingt-dix miladier ci eh, ère chrétianisme eh, ba way juróom yëgee ni dem na ko noonu la ko toppee moom sëñ Mor Alassane Sall ba ñëw ci sëñ bi waxee eh, sëñ Mor Alassane daal ni ko sama xel dal na lool daal di koy bàyyi sëriñ bi suñ mor falo mujj ci loxol sëriñ Tuubaa sëriñ bi daan ko tërbiya lépp ci tërbiyaam nag mooy la ko daan jàngale loo ak di ko binduloo loolu moo ëppoon ci li ko dul yare sëñ moo rek amoon ak dégg ci sëriñ bi lool ndax diine day loo xamul dem laaj ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo gën ku yàlla bind waaye nag teewul saxaaba yi ñeme woon nañ ko ñemel di dem ci moom di ko laaj moo tax sa sëriñ boo nekkee moom it doo ko wekk wekk sa wàllu diine lu la ci réer rek demal ñu ko loola kon a nekk moom danaa laaj sëriñ bi ñu bari ñemewuñ koo ñu bari yenn laaj dañuy wax wax leen morphologie yi mu laaj ko sëriñ bi bi daal di koy leeral te dégg lool ndax loolu la sëriñ bi bëgg moo tax am na dénkaane bari yu ko daan dénk moom suñu mor faaw ak wax bokk na ca daanaka wax ni ko na jàngi xam-xam ndax jamono ngi ñëw ñoo xam ni ku mu fekkul nga jàng xam-xam ba yeewu lool xam sa diine jamono dana la fëkk te bu la fëkkee nga sànq loolu la suñ ko seetee suñ jamono yi day bari lool ndax bari na ñuy yoon wañ jaar te defe ni mooy dëgg ak la ñuy atte woo yëpp ko seetee dellu ci alxuraan doo ci fekk boo delloo ci ci fekk te yooyu ñooy ñaari toxalukaay yi wér suñ diine ci Seydina Abu Bakri radiyallahu anhu nee na woon eh, mabniyun ala naqli laa ala munasabati al-aqli loolu moo tax bàyyi xel baax loolu ci tënk rek waxtu bi yaatuwut di maam Cerno Ibrahim radiyallahu anhu am na ñaari taalibe yi ma sa toog fi moom di kenn ki wax morom bi ni ko waaw ndax xam nga def lu mu la la sa sëriñ digal rek nga def lu tere nga bàyyi maam Cerno kanam gi xaw a sottiku dal ni ko ah, loolu nga wax ne rafet na sax waaye nag nit ki day lépp lu lay digal war nga caa jàngat ndax dëppoo na alxuraan wala dëppoo na ak sunna kon loola egg nañ ci jamono ndax bari nañu sos ñu leen woowee ay sëriñ te la ñuy digle ak tere ñaari seen intérêt bopp moo ci yëpp loolu sax amoon na fi jamono sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu la ba demee ci Masaalik tënk na ci sëriñ soosa nañ meloon nañ meloon kon ñooña ku àndoon ak ñoom war ngay loolu ba ta bàyyi kon yooyu ci la sëñ Mor daan ak sëriñ bi radiyallahu anhu sëriñ bi nag def ci moom la mu waxoon yabal ko mu dellusiwaat daal sëy daal di def benn markasul ilmi benn centre xam-xam dundalaat ko xam-xam ak tërbiya jàngal ñu bari ba ñu am xam-xam xam seen diine tërbiya yi itam mbooloo mu bari ni ko sëñ bi doon doon defee la ko doon defee ñi toll ci jàng mu jàngal leen ndax jamono ku ne xam na ni ku toll ci jàng di su war a jàngal waaye jël ko ne bu ndaw ku toll ci jàng nga mag mi nga xam ni ay way juróom jàngaloo wuñ ko woon ba xam-xam raw na ko kooku nga tërbiyee ko defar ko ba defar xol ba dikku jël ba fu dem mel ni ku jàng noonu la sëñ Tuubaa loolu la sëriñ moo daan def bi mu jógee ci kon loolu lu ma tax bàyyi xel sëriñ moo doon bu xam-xam nag bu dee ci wàllu xam-xamam ba téere yu bari daana ko taalif di bind ci sëriñ bi na téere moom dajale woon ci ay dénkaane sëriñ bi ak yu ko sëriñ bi daan dénkal boppam tey ci bari day wax ni ba ma koy dénk noo nga ca biir jàkka ja moom waxtu daw faat te si biir jàkka la ko daan jullee dénkaane yooyu bu leen ko nettalee da nga naan kii waxtu sëriñ bi daan ne ci jàkka ji rek mi ngi topp ci gannaaw bi mu ñëwee kër tey day am na rëkkal bu sax tey li ci moo daan jiiti te daana wax ni foo mën a jógee ak lu sa daraja mën a toll. loo yor lu bokkut ak sariatul islaamiya boo ñëwee ba ci buntu dëkk bi nag ko fa yenn ku teg ko foofu boo demee bay génn naa ko yenn sa yëf yóbbu kooku yaakaar naa ko fonk moom sa yàlla tey diggante maam Cerno Ibrahima ak Sëriñ Tuubaa bi mu yaroo moo tax mu fonke doone eh, shariatul islaamiya kon eh, noonu loolu la dundee eh, dëkk boobu nag bi mu ko sañcee da koo tuddeewaat Daaru Sëy Daaru Sëy la ko tudde woo mësu faa nangu lenn lu wuteeg sariya islaam yi ba ci am tëgg sax daawu ko nangu jaxasoo góor jigéen daawu ko nangu ndax ku Sëñ Tuubaa yar ku nekk xam nañ ni noonu rek nga a doxale eh, bi nga xamee ne jógee na ca sa jëkk dëkk bi njëkkoon nekk ñëw ràññu si Daaru Sëy sëriñ bi digal ñu ko ni demee na nga jógee ca da nga dalee ca dëkk bu njëkk ba dox jëm si Bawol boo di taree suratu yaasin bu mu jeex nga daal di samp foofa daal di fay def jàkka bënd fa am teen noonu la ko defoon daal di koy tuddi Daaru Sëy mooy kër Mor Abdou Guèye jikkoom nag moo doonoon jikko yi jullit rek xaqal jikkoy alquran rek comme ni ko sama sama waxee woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di jikkoy mu ne saadiq daawul na moom bu sell suufi nag moom eh, daan digle lu baax daan tere safaan kon am na ci ay digleem ak i tereem sax ay bind yu ci bindoon ci ñoo xam ne dañoo nekkoon ca wàllu dëkk ba te jëfandikoo lu ñuy tere wax ni àlla fatrubu duxaana wal xamra wa zinna wa kulla lasi lam yartahu llahu wa riba na ngeen moytandiku li ñu tudde duxaan te mooy tux ak sàngara ak njaano ak lépp loo xam ne yàlla gërëm am na ci ñoo xam ne boo fee dëkk ba njëkkoon a nekk bañ leen fa bàyyee yàlla dogal ñu am aw xew benn bis di tëgg dafa daal di dajale mag ñi ñu jël seeni jaasi bañ demee ñu daal di leen di dàq daal di bënn ndënd yëpp te suba sañ ñëw tuubal si ko muy lelaa lépp lu Sëriñ Tuubaa nanguwul fa Tuubaa ne Cerno Ibrahima nanguwu ko fa Daaru Muxti man moo xoolu say du ma ko nangu fii sama dëkk bi loolu ba tey mooy dox ci dëkk boobee mu ràññee ko bu baax ci jàngale xam-xam moo taxoon sëriñ bi tudde ko Nibra su njàmbur muy làmp xam-xam buy leeral njàpp gépp am na xasida bu mu def ci sëriñ bi ci sëriñ bi làqoo 1927 bakayna ala seyxin xawal majd wal ula shafiil waraaya waltaxaaburi wal xasib xadimi rasulillahi naasiri diinihi lahu saqu wa taqdiimu fi sirri wal jahri huwa seyxu xaqan wa suyuuxu iyaaluhu wa man raama shaykhan ghayrahu ba'a bi faqr izaa maa zakartu shaykha faada al-madaabi'i wa faada dumu'i fi fuyuudi al bahri loolu tënk euh, marché boobu xasida bu gudd la nag kon xam naa ci tënk rek même bi kiiwul ñu doy loolu la yem ci foofu euh, xasida bu gudd la yàlla na ko yàlla fayal mbooloo lislaam ñépp ci loolu nag la sax ba ni mu wuy jee borom ci atum 1376 hijriya wala dund lu toll ci ay juróom-ñetti fukki wala juróom-ñetti fukki ak benn waaye daal muy dund gu barkeel na ko aalimul aalimul Busobi waxe woon umruhu udda aw za safayin kaana xaqan min anfayil amaali muy dund Sëriñ Tuubaa day udda la juróom-ñaar fukki at ak ñeent aw ihi wala juróom-ñaar fukk ak juróom waaye ci dëgg-dëgg daal dundam googa nekk na dund gi ëpp njëriñ ci dund ci kon sëñ Mor Borom Seye ak dundam bu am njëriñ la ci lislaam bu am solo la ci lislaam yàlla nañu yàlla fayal fayal ko jullit ñeer la muy fay ak jaam bu rafetal wa kullu man nasara fal yadaw lana bi xeyri ma ngir daal di am nañ ak sara ba sëriñ Tuubaa ñaanoon radiyallaahu ci Masaalik ni képp ku yor sama téer bi nag ma ñaanal la gën ci lu ñuy ñaanal ab jullit kon yàlla na ko yàlla lool ci barkeel sëriñ ñoom ba mu àndaloon Seexul Xadiim di liggéeyal islaam fa sallallaahu ala muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima kasiran assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi wa kafaa wa salaamun alaa ibaadihi alladiina stafaa mbokki jullit yi fi teew yépp ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam di ndokkeel bu baax ci turu sama kilifa gii ma fi àndal tey muy sëriñ Basiiru Sey ñu ñëw fii ci ndigalu sëriñ Moustapha Sey mi yàlla def mu nekk ci bopp njabootu sëriñ Mor Fallou Sey ah, di ndokkeel bu baax mbokk yu baax yi nga xam ne ñoom ñoo taxawal te jëmmal bis yu mel nii di wax na jëmm jooju nga xam ne moom lañ ko darajaale muy Serigne Mor Fallo yaakaar naa ko am lante woon la ak borom barab bii di Serigne Chouaïb bu Bàcc ndax 1945 Serigne Chouaïb bu ñëw na fa ba Serigne Mor Fallo mii tudde ko doom yaakaar naa kam ko tudde ñu koy wax Serigne Chouaïbou Seye soxna Aminata Mbacke moom Serigne Baara mooy way juram kon ñoom yàgg nañ lool ci amlante 1945 kon amlante googu xay na moo sof ba agsi fii tey waaye di leen ndokkeel ci jéegoy xam-xam yi nga xam ne moom ngeen di taxawe di ko gunge bis yu mag yi ndax jubluwaay bi mooy xamal ndaw ñi fi ñu war a teg seen tànk loolu dong ngay jubluwaay bi la waykat ba waxoon ne euh, ndaw ñu ndaw ñu mën a doon bu fekkee ne am nañ mag ñu leen fi jiitu woon amoon fu ñu tegoon seen tànk te am ca ndam bu ñu ñëwee jaaxle waru jaaxle waru kon loolu bokk na ci jubluwaay yu mel nii ndax dafa waxoon ne bokk na ci sabab yi gën dëgër gën a jëmm mooy mag ñu fi jiitu ci mbaax ndaw ñu ñëw roy ca mbaax min aqwa al asbaabi fi nahdati al albaabi qiraatu sigaari li siyari al kibaari ndax seen jéego yooyu ak seen liggéey ya waruñoo dem rek mu mel ne ñoom amuñu fi woon wala bàyyiwuñu fi jaaxe fa inna fi ma jaahadu wa inna fi kaabadu wa jaddadu wa aslaxu darsan jalil al yu yufiidu ahla dhikri kon loolu uh, lu war la sëriñ Basiiru mi nga xam ne moom la yàlla def ñu jiital ko ci boppu mbooloo mi fi teewu mu ànd ak taalibe yépp fu ne waaye jógee fi ngir ànd ak ñun yéen ñëpp nee na mi ngi leen di sant bu baax di ñaan sunu borom nangul leen di ñaan sunu borom barkeel jéego yi ak yëngu yeeg lépp rek kon uh, kàddu yooyu rek lu ci gàtt noonu lañ ko ndax ndawe buñ ndawee ci yëkkati kàddu yi waaye lim ñu waxoon ñu wax leen ko sax ëpp na loolu kon kàddu yi sant rekk la ak ñaan ak euh, rafetlu sëriñ bi neen lu na bu baax a baax jëmm yi ngeen ko tuddee te xam ne lépp ci liggéey lislaam la ndax sëriñ bi ak ñaan doon ak ñoom fésal seenub liggéey ñun la war ndax ñoom la leen waroon def nañ ko defuñu ko la leen ca war lépp dem nañ kon ñun ñi taxaw tey wuutu leen ci liggéey yooyee yu mag yooyee ngir mu war a am ak continuité kon euh, kuy dox lu mel nii rek nee na jàpp na ne moom moom nga ko defal tey moom nga ca wuutu ñu ngi ñaan baax a baax suñu borom nangul leen ko nangul bu baax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu salaatu allazi fi kulli sahrin wa fi safar hamaani halaa maahin maal absa wa safar